daraja Sëriñ Tuubaa إلى دقيق ليس سقيم باب رقيق يمون داي لغير تائب لغير تائب منك صفاي لك الغروب منك السروب مع الغروب يزلها laka Serigne Mokhtar di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér naka noonu it dañuy siyaare Cheikh Jëmb Fall suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér waaye di jaajëfal ba tey képp koo xamante ni yaa ngi bàyyi xel seen chaîne bi nga xamante ni mooy Touba Vision comme niñ koy waxee moo xam ci réew mi la ak ci bitim ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi nga xamante ni yéen ñu koy topp saa su nekk. comme niñ leen ko diggee woon rek ñëw ak ci seen émission bi nga xamante ni mooy guddi àjjuma comme ni ngeen ko xamee ci ñu koy dundee euh, fële ca Touba dox ñëw fii ci Ndakaaru te ji nag ñëwoon fii fekk fi daayira Miftaaxul Muna ñu doon daayira bu am solo doon daayira joo xamante ni jàmbaar la lool ci liggéey bi di liggéey liggéey bu ràññeeku lool fii ci Sicap Mbao daanaka loolu moo sabab ñu seetlu leen ci ngir seen liggéey bu am solo ñëwoon fii fa yéene dundal ak ñoom tey ji guddi àjjuma guddi àjjuma nag comme niñ leen ko waxee léegi sosuñu ko fi lañ ko fekk mu doon lu baax loo xamante ni comme niñ leen ko waxee léegi rek euh, am na doon na loo xamante ni lu lu lu luñ fi fekk la ngir euh, bis yi baax na lool. guddi yi guddi yi baax na lool waaye guddi gi nga xamante ni moom lañ taamu muy guddi àjjuma dañoo gis ne amaana guddi bu baax la guddi bu am yi ngëneel la guddi la boo xamante ni ci biir guddi yi la moo waral comme niñ leen ko diggee woon rek ñu indil leen ko ci seen seen bi nga xamante ni mooy Touba Vision ngir di leen ko indil ay bés bi yëpp alxames jot ñu fas yéene fu ñu nekkati rek ba alxames jot rek ñu fas yéene seeti borom xam-xam wala eh, fekk ji daara joo xamante dafa mel ni daayira Miftahul Muna di liggéey liggéey bu am solo boo xamante ni Serigne Touba képp a tax ñu seeti ko fas yéene yaatal ak ñoom ngir seenub liggéey niñ koy amalee ci fi ñu ne féetale ko ngir ndax buñ nee daayira Serigne Cheikh Mbacke moom moo ko sos waaye sababu ba koy sos amaana bokkoon na ciit ne xalaatoon ne jamono dina toll foo xamante ni. toolu àllarba comme ni ko mag ñi amee woon dina dina raax ci jamono ji day mel ni loolu day day remplacer taxawaayu amaana daayira day ñëw taxaw taxawaay boobu kon amaana loolu tijji la boo xamante ni dañ leen koy doon tijjil rek waaye dañuy dugaat ngeen ngir comme niñ leen ko waxee rek dundal guddi gi nga xamante ni mooy guddi àjjuma kuréel gi dañuy ñëwaat léegi rek amaana njàngaat mu tuuti rek ci xasida yi buñ noppee ñu dalal suñuy jëwriñ waxtaan ak ñoom ci guddi gi waxtaan ak ñoom ci daara ji nan lay nan la amee ab doxalin boo xamante ni moom la am fii ci Sicap Mbao ñu fii liggéey liggéey bu ràññeeku boo xamante ni ku ne gis na ko fii ci box bi ñu doon ay jàmbaar lool yor fi liggéey bu sell bu am solo lool lool lool ci fii ñu nekk kon dañuy bàyyi kuréel gi dawalaat léegi rek ci xaside yi ñu dikkaat ak yéen ci suñuy jëwriñ waxtaan ak ñoom ci nu daayira bi di doxee kon bisimilah. di ngeen jëf euh, ci njàng am solo moomu mbokk yi gis ngeen njàng am solo moomu kuréel gi doon yëkkati léegi mu doon njàngumu am solo ku ko dégg xam ne euh, ñi ngi liggéey wax dëgg yàlla ndax day mel ni njàng muy jaar yoon boo ko déggee rek di nga xam ne lii moom euh, aw na yoon. waaye ba tey comme niñ leen ko waxe woon rek ñu ngeeg yéen ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy émission guddi àjjuma ñu ñëwoon fii ci Touba Diamaguène quartier Sicap Mbao fekk fi daayira Miftahul a ñu am liggéey bu am solo boo xamante ni dañ koy liggéey fii ci uh, gox bi ñu ràññee leen ci lool gis nañ fi léegi it uh, ñoo ngeeg seeni rakk yu jigéen ak it seen i mag gis nañ fi it uh, suñuy yaay booy yoo xamante ni ñoom it ñoom ñëpp ci liggéey bi lañ bokk du ñàkk it amaana buñ demee uh, ba ca cat la du ñàkk kenn koo xamante ni ci soxna yi moo xam jëw ñu soxna yi la wala dinañ ko dëkk suñu micro ñu wax ñu dëgg-dëgg liggéey bi nga xamante ni uh, ñi ngi ci bay seen waar fii ci daayira bi nga xamante ni mooy Miftahoul Mouna du ñàkkit suñuy jur yu jigéen yi dañ leen joxit ñoomit it ñu wax ñu dëgg-dëgg seen doom yi naka lañ leen gisee agit it euh, naka la ñuy doxee ci daayira bi nga xamante ne mooy daayira Miftaaxul Muna waaye comme niñ leen ko waxee woon rek dinañ dikk ak yéen lenn ci ngëneelu guddi gi nga xamante ne mooy guddi àjjuma day mel ni comme niñ leen koy waxee saa su nekk bis yëpp a baax guddi yëpp a baax waaye rawatina guddik àjjuma day mel ni ngëneel yi e, yaatu na lool laataa ñuy tàbbi ci waxtaan yu jëm ci liggéey bi nga xamante ni mooy daayira bi nga xam ne mooy Miftaahul Muna ñoom lañu fekk si den nañu suñuy jëwrin dañ koy jox tuuti rek mu dikk ak tuuti ci ngëneel yi nga xamante ni mooy ngëneelu guddi àjjuma amaana buñ ci buñ ci jógee rek daal di tàbbeek jëwrin yi wàllu liggéey bi bisimilah. Baabil Muridiin kon gannaaw kàddu yooyu dañuy nuyu mbooleem mbokki taalibe yi ñu fekk jitaay bi yëpp waaye tam di leen dabalal yéen ñi nga xamante ni yéen a ñëw fii nga xam ne mooy Daara Miftahoul Mouna Touba Vision ñu ngi leen di dalal baax ci daara nga xamante ni fi lañ fekk baax muy daayira Miftahoul Mouna ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen masaw coono waaye muy daayira yoo xamante ni it liggéey sëriñ bi rek ci lañ sax ak jaamu yàlla kon ni ko waxee rek. guddi àjj moom ngeen fekk mbokki taalibe yi sax sax ci saxal ko saa soo xamante ni rek guddi gi jot na bés bi di alxames di guddi gi àjjuma nga xam ne suba jiñ jëm moom mooy ma waaye tey la bés bi tàmbali nga xamante ni muy guddi gu màgg chaque jour rek mbokki taalibe day daar yi di ko màggal comme li nga xamante ni noonu la ko ñëpp di màggale waaye itam muy guddi koo xamante guddi gu màgg la ndax am na fu bari foo xamante ni firnde nañu ne sëriñ bi fonkoon na ko lool maanaam nelaw guddi gaaj ju ma sa ñàkki teggin la nga xam ne kon loolee sëriñ bi fonkoon na ko lool nga xam ne ba daan ñu nelaw guddi gaaj ma comme ni mu diglee ñu ñu moytandiku comme ni mu teree ñu moytandiku di nuyu nuyu gannaaw tàkkusaan ak gannaaw fajar noonu la fonkee woon guddi gaaj ju ma wax ne sax ay teggin nga ciy nelaw nga xam kon moom daan na ko fanaani naafi la ak di ko taxawal ak di ci soññit mbooleem li nga xam ne mooy taalibe yëpp kon noonee la ko sëriñ bi fonke woon ak li ma ci wax léegi boo demee turist ubbaan boobu téere boobu dootoot na fay wax yonante bi mooy li ma wax léegi nga xamante ni li yonante bi wax moom la leeralaat foofu rek ci turist ubbaan muy képp xamante ni rek génn na ci àdduna suñ borom du ko laaj ci guddi googu ci bëccëg googee dara directement àjjana yi def duñ ko toppee dara nga xam ne buñ koy àttee it ëllëg lañ koy àttee te ëllëg it borom mën na koo jéggal sax ci barkeeb guddi gu màgg nga xamante ni daanaka gaa yu baax yu bari ci guddi gi la ñu faral di génn àdduna ak lu nga xam ne bés bi nga xam ne suñ jàmbaar ju tedd jee Serigne Saliou ku ne xam ne ci àjjuma la génn àdduna waaye mën nañu ci guddi gi la ndax ci dañ koy booree ci guddi gi ndax bu ñuy lim ci diine ci lislaam bëccëg guddi bés bi mu ngi tàmbalee bu timis xasee maase rek paase rek kon ci la bés bi tàmbale kon noonee mooy ngëneel yi nga xamante ni làmboo na ko ak may yi nga xamante ni Eh, suñu borom def na ko ak xéwal yi nga xam ne suñu borom def na ko ci waaye itam muy guddi goo xam ngeen ma jéggalu it ma jéggal leen ana ku may woo ma wuyu la ana ku may ñaan ma may la ana ku may lu ma jéggal la ci guddi gi nga xam ne mooy guddi gi àjjuma noonee la ko ñu baax ñëpp fonkee ba ko xam Serigne Amsatou Mbacke di bokk ci njabootu Serigne Touba Xadimu Rasul bokk ci njabootu Serigne Souhaïbou nga xam ne lépp benn la kon moom it fonk na ko lool ba nga xamante ni ñaax na ci taalibe yu baax a baax bañ fu ñu mën waay mën a nekk rek nañ koy taxawal di ko màggal nga am ne guddi googu da koo jagleel fu ci nga xam ne poroxaan gi mujj guddi gaa ñëw gi ci mujj barab bi soxna jaaroo ko jagleeloon kon noonu la ko toppee woon kon ñu baax ñi fonkoon nañ ko it kon ñun ñi taalibe it nañ ko fonk baax ndax guddi gu màgg la waaye guddi gu bàkkee la loo ci ñaan yàlla may la ko loo ci jéglu si moom jégal la ko ci nan lañ koy fonke nag moo ñu jàngal xuraan jàng ci xasida yi nga xamante ni moom la ñu sëriñ bi bàyyil ak salaatu ala nabi da lépp loo xam ne muy salaatu ala nabi ak jàngal xoraan ci dëng rek ñoo xam ne jëmm ji ñàkk solo moo ko doon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. gi am na solo waaye bu ñu déggee léegi say biir wax ah, dikk nga ci amaana ku xool taarix day mel ni ah, ni mu ko waxee lu sëriñ bi fonkoon la bu ñuy xool ci lislaam amaana ngëneel yi nga xamante ni day aju ci biir bis yi bis yëpp baax na comme niñ ko waxee ci tàmbali bi waaye guddik àjjuma daa doon guddi goo xamante ni guddi gu guddi gu am solo la goo xamante ni amaana ba bariwaana kilifa yi nga xamante ni néewaana luñ koy luñ koy luñ koy dallu amaana mën nañ sax ñoom du ñuy dallu waaye rawatina guddi gu mel nii tey jii ñu ñëw fii ci euh, jàmm gën daayira Miftaaxul Muna ñu fekk leen naka jekk ñoom ñuy doxal lu mel nii ngeen doon ay ndaw di dox ci sëriñ bi te sëriñ bi képp yitteel leen ana tey boo leen di ñaaxaat ci liggéey. comme ni nga xamante ne loolu lañ ci dolliwaat mooy comme fi nga sofe rek muy guddi gi guddi gi àjjuma gi nga xam ne lépp day dugg ci bés bi rek gaa yu baax yi comme ni ma ko wax ci njëlbéen fonkoon nañ ko lool waaye muy bari ay xew-xew yoo xamante ni suñu borom la koy def ci bés bi nga xam ne guddi gi ak mën nañ koo limaale ci bés bi rek nga xam ne bésu àjjuma bari na xeexu yu bari bari yoo xam ne xew na ci yu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax sax ne dana ci xew lu mel ni mu toog jotaay bi nga xam ne toog na laataa mu jóg ci jotaay bi mu jullee àjjuma ba noppi jotaay boobu mu jàngi fi faatiya juróom-ñaari yoon ak li nga xam ne mooy euh, xulonse bi dami naas juróom yoon ak li nga xam ne mooy xulonse bi dafa lax juróom-ñaari yoon diir bi mu ko jàngee àjjuma boobu ba àjjuma bi dil siwaat amul lenn lu koy lor ci diggante bi te aaju jum am suñu borom da ko fajal kon nga xam ne looleel bokk na ci ngeen lu màgg yoo xamante ni bésu aju am na ko waaye day jimaat ci guddi gi ba léegi. kon loolee bokk na ci li nga xamante ni moom mooy eh, bésu ajuma waaye itam mu bekk bés boo xamante ni it mboolem jullit ñëpp war nañ koo fonk bu baax a baax ngir ngëneel li ci am ak màggaay goo xam ne gars yu baax yi danañ ko màggal waaye itam ak gannaaw bi nga xamane ne suñu borom. Eh, dëggaloon na yonent bi sala sax mu fonkoon ko waaye yonent bi wax fu bëree bëri niñ ko war a fonke ak ni nga xamante ni noonu la ñu war a jàppee lii moom mooy guddi àjjuma ak ngëneel li ci làmboo kon loolee war naa tax berndeel ñi nga mën a berndeel waaye itam di ko dundale ci jàngal xuraan ak jàng xasida ak bernde nga xam ne noone la sëriñ bi taamoo ci mboolem lu muy digle léeg lu baax noone la taamoo ñu ñu ñu ñu jëfandikoo ko noonee kon loolu mooy li nga xamante ni loolu lañ joo dolli ki képp koo xamante rek yaa ngi eh, fexe ba suñu borom di la may ak ngay muy dem ak dir war ngaa fexe ba. guddi gi nga xam ne mooy guddi bu ñëwee nga dundal ko ci dundal wu nu rafet guddi googi nga jaayante bu baax a baax bañ koo nelaw dundal ko ndax li ma waxoon sànq rek sëriñ bi nee na bokk na ci ñàkki teggin nelaw guddi àjjuma te loolu lu waxi Serigne Touba la lu wér la sa yëpp mooy mañ maw ajwa bi nga xam ne sa yëblaat moo ko dajee la ko Serigne bi wax nga xamante ni euh, à part guddi gi àjjuma sax yeneen bis yi nga xamante sax du bisu àjjuma sëñ bi dana dana jaan foogloo mag ñi guddi gi ngir ñu bañ koo nelaw di leen di leen notloo seen bakkan ndax Serigne bi day wax ne ñeenti doom li biyante ne xëraaya li ma bëgg a firndeel fa mooy daa wax ne suñu borom moom la na ko bakkanam ak bànneexam ak àdduna waaye seytaane moom na ko sori muy muy malak malaktu sa saxtu layin saxtu laxin moomee mooy saytaane waaye fi mu fi mu ne jawartu bil furxaani rabbi yàlla muy damaa dëkkale ci ci alxuraan waaye malaktu nafsin mooy yàlla moom la ma sama bakkan malaktu nafsin siyaw sax saxtu layin kooke nag mooy saytaane nga xam ne ñeenti noonu yooyu la wax ne ñetti ñi man maa leen moom maa maag ñoom ba àjjana waaye kenn ki na ma sore ndax wax na ne malaka ni dunyaa waxuraa samadu kon loolu lu la sëñ Abdou Khadir am nañu ko laajoon ne ko bakkan ak bànneex ak àdduma ak saytaane de benn baaxu ji sëñ Abdou Khadir ne ñetti ñi baax na bu dee yow yaa leen moom muy bànneex sa bànneex boo ko moomee baax na sa bakkan boo ko moomee àdduna boo ko moomee baax na ndax sëñ Tuubaa wax na fu bari ne yàlla moom na ma sama bakkan ak àdduna ak li nga xam moom mooy sama bànneex kon ñett yooyu boo ko mooy waaye ki nag ki nga xam ne nag moo dul baax ba faw mooy seytaane Sëñ Tuubaa nag daa wax ne ñetti ñii ñeenti noonu yi ndegem mooy doom ñeent noomi noonu doomu aadama tax suñu borom noonu bu ci nekk tudd na ko ci alxuraan muy ñeenti noonu yi bu dee àdduna suñu borom wax na ko ci alxuraan wala taxulonum xayal dundee bu leen at dunduk àdduna gi wor wala taxulonum bi lay xarul nga xam ne kon seytaane mi workat bi bu mu leen wor waaye itam wax ne na ngeen jàppale seytaane ne xam ne seytaane rek mooy seenum noonu kon ñun nan la ñu war a def mooy fexe ba ñeenti noonu yooye ñu nan la ñuy bëreeg ñoom mooy fexe ba fañ ñuy woo ñu bañ faa bañ faa aw sëriñ bi nag firndeel ñu nan la ñuy mucc ci neen ñeenti noonu yooyu. kon mooy mooy naan daa war a seytaane bu fekkee bëgg ngaa mucc ñi moom na ngay saxal tudd tur yàlla tur yàlla nag mën nañ ne li ma waxoon sànq rek xaside yi moom Sëriñ Tuubaa def na ci lépp. mën na cee jàpp def na ci lépp waaye itam bu fekkee da nga bëgg a mucc sa bànneex nee del niiwal say wax te Yonent bi wax na ne. Euh, man xaddaa kàllaamu loolu imaam Maalik wax sax si yonent bi dafa wax ne kàllaamu ibni aadama kulluhu ima xayri aw sarri waxu doomu lépp benn mu nekk yi walaw ay ñeel ko yiw wi ay wit ci boppam la jëm si am na feneen fu mu wax ne euh, man kaan yum billahi yumil axiri falyaqul xayran aw li asmut léegi kon loole bokk na ci wax ju wax ju néew ci ci sëñ bi doon na ko noté mag ñi ci ci fexe ba di ko moytandiku waaye bu dee li nga xam ne mooy àdduna kasaalika nga xam ne àdduna nan ngay mucc ci moom sëriñ bi nee na ngay xool mbooloo yu baax yi ngay jaxasoo ak ñoom waaye di fexe di moytandikoo jotaay bu jotee nga dem jaxasoo ak ñoom loolu wax na ci tuy sixaar na ngeen moytu jotaay yi nga xam ne dañ majaali sa saxawa kon loolee mat nay moytandiko waaye itam nag bu dee li nga xam ne mooy suñu bàkkan nee na nag ñuy néewal suñu lekk néewal lekk googee mooy ngay xiif xiif boo xam ne xiif bu digg doomu la kon na ngay xiif comme ni nga xam ne noonu la gaynde di xiifee nga xamante noonu la ko waxee ci tuuti subaan ci mujjant ga nga ne noonu la ko lee waaye loolu li may jàngale foofu rek mooy ñett ñeent ñooyee ni ñu war a jëfandikoo moom mooy fexe ba guddi yu mel nii ñuy jaayante bañ di euh, jël loo xam ne maanaam lekk lu wala ñuy ñuy ñuy nelaw ba xéwal yi nga xam ne mooy xew ci guddi yi dañu raw te lekk lu lekk lu bari mooy tax nga nelaw. lekk lu bari day day day tëxalam xel waaye tam day yàqu mokkal noonu lekk sëriñ bi waxee tal yooyu da saa boo lekkee lu bari su boobaa seytaane day not sa bakkan not la sa bànneex not la te su boobaa yow guddi gi doo ko mën dundal kon loolee mat nay moytandiku baax a baax kon nag bu fekkee da bëgg a dundal guddi gi laaj na yow nga sàmmonteeg lii ñeenti noonu yooyu noonu muy fexe ba moytandiku di di di jaxasoog mbooloo moo xamante ni xëy na seen jëm-jëm jëmul ci yàlla wala ngay baril say wax wala ngay lekk lu bari loo xam ne su boobaa da lay teenelaw te sëriñ bi wax na ci fi nga xamante moom mooy euh, irwaaw nadim boobee nga xam ne sëñ maam la dagana moo ko bind boo demee ci biir wax na ne ci ni mu daan tarbiya mag ñi wax na ne malaaka yi nga xamante ne nii malaaka yi yërëm nañ gisee kuy lekk lu bari dañ koy yërëm ndax dañuy xam ne du gaaw àgg ci yàlla kon gaaw àgg ci yàlla ànd ak lekk lu bari te kon noonu yàlla sëriñ bi daan tarbiya mag ñi mu ñuy niiwal seen lekk nga xamante ni ba si seen ciir oyof bañ mën a jaamu yàlla ba mën a xalaat yàlla kon guddi gi dangay niiwal sa lekk waaye itam fexe ba dundal guddi gi ci jaamu yàlla ci tudd yàlla jàng alxuraan ak jàng xasida waaye itam ak fanaanee naafila ak zikkar ci turu yonante bi salaa salaam kon noonu yàlla ñuy dundale guddi gi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu baax jërëjëf mbokk yi comme ni ngeen ko déggee noonu kàddu yi macha allah am na solo lool jërë jëf mbokk yi comme niñ leen ko waxee léegi rek eh, dégg ngeen kàddu yi am solo yooyu ñu doon ñu indil ngir leeral ñu solo su guddi gi nga xamante ni mooy guddik àjjuma ba tey ñuy wéy ak yéen ci waxtaan wi nga xamante ni moo jëm ci eh, daayira bi nga xamante ni mooy daayira Miftaaxul Muna ñu toog ak jëwriñ Sëriñ Pape Ndiaye eh, ngir mu leeral ñu dëgg dëgg dëgg dëgg daayira bi nga xamante ni mooy daayira Miftaaxul Muna kañ la sosu agit it bi bi mu sosoo ba léegi yan jéego lay jot dox yoo xamante ni mën nañ cee teg suñu bët ak it euh, bi ci yan programme la nekk ak it euh, daayira bi nga xamante ni mooy Miftahul Muna lan mooy seen yéene agit seen mbébét dëgg-dëgg kon sëñ Pape ginnaaw biñ la nuyoo rek liñ lay njëkk a laaj mooy euh, daayira bi ban at la lañ mën a jàpp na ci la liggéey bi sosu. jëf sëñ ñu ngi lay siyaar bu baax di leen wax ahlan wa sahlan di siyaar mbokku taalibe bi nga àndal moom mi nga xam ne moo féete ci xarala gi ñu ngi koy siyaar bu baax di siyaar mbooloo mu fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Sidi Mokhtar Mbacke di ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool ba naal yi mu naal ku tedd gi di Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul mu yàggale ko ba naalaat yeneen ci barke Serigne Touba di fàttaliku tam suñu jàmbaar ja Serigne Saliou di ko ñaanal sama borom yokk ay leeram bu baax a baax a baax ca àjjana yu kaweem nekk ci barkeb Serigne Saliou ndax Serigne Saliou ku mat a ñaanal la ndax ñu de ginnaaw bi ñu doonee lii mooma rawatina daayira bi nga xam ni ñu ngi ko sos ci bis boo xamante ni si maanaam bis bu yéeme la muy guddi àjjuma tombeek 10 septembre mille en ci lañ ko sos. mu nekkoon guddi àjjuma kon day mel ni guddi àjjuma kooku taarix la ci ñun saa yu ngeen koy wax daf ñuy fàttali lu bare bare ndax ci lañ doore woon daara ji muy bisu àjjuma di alxamis kon loolu ban ci nekkee ci 2001 boobu noonu daara ji activité yi mu am yëpp amu ko woon boobu ñu ngi nekkoon ci taxaw di sikar ndax dañuy wax ni bépp mbooloo moo gis rek bu ñuy door dafa am kuy nekk seen biir koo xam ni moom lañ naan Babul Mouridina muy Cheikh Ibrahima Fall daara joo fi gis mu taxaw rek bu ci Cheikh Ibrahima njëkkul rek daara joo du dem te suñ daara jii nii Cheikh Ibrahima moo ci njëkk ñuy taxaw di sikar bu baax ba suñ baat yi tàng ñu naan kafe soññee daal di yeweeku boobu melaguñu nii waaye buñ ko melee jëmmi Cheikh Ibrahima Fall bokk na ci. ban jógee ci loola ñu nekk ci daayira bi nekk ci daayira boobu benn jëwriñ ju ñuy wax Sané ñu gën koo xam ci Mamadou Fall yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana moom moo jiite woon daayira bi ndax boobu bi ñu koy sos maa moom ñoo doon xëyandoo Dakar ak seen jibi ma di sama mag ñoo bokk ndey ak baay ñu toog ba mu yàgg ñu ni war nañ fay def daayira mu ni ay ca mu ni léegi kan la def jëwriñ ji ma ne ko yaay nekk njiit li mun ma est ce que man mën na maa nekk njiit ndax dama am xaw am kersa naaru kajoor laa dama xaw am kersa mu munumaa wax ci biir nit ñi ma ne ko loolu du ci daal Sëñ Tuubaa bu la jiitalee rek jàppal ni yaa jiitu ñuy dem nekk ak moom nekk moom waaye ñu joxoon ko war ma ndax xam nañ ne comme dëkkul fii ci koñ bi ci ma xala dëkkoon waaye comme que ñun njiit li ñoruñu ñu joxoon ko ko rek ni ko jiiteel bu dee yenn relation extérieure yooyu ñu gën ko ko miin di ko ci jàppale moom tam mu nekk nit ku gore ñu dem ba jëmmi jamono mu woom ba ma ñëw mu ni ma jëwriñ neexul ba neexul waaye buñ ko waxee yaay jëwriñ buñ ko waxul yaay jëwriñ man ko tax nga wax loolu mun ma ku ñëw yow lay laaj yaa xamante nit ñi yaay indi mbooloo mi ci daara ji damaa bëgg ngir jëmmi Sëñ tubaa nga jiite mbooloo mi man ko loolu day diis ci man jiiteel mbooloo mi mun ma ñaan naa la ko ngir jëmmi Serigne Saliou gaa yëpp ànd ci ñu jël ma def ma jëwriñ jooju keroog laa ko doon ci ay 2003 yooyu ñu ne ci liggéey bi bis bi ñu taxawalee euh, cant googu maanaam bis bi ñu taxawalee daayira bi laytu xadri bi njëkk si lan taxawal laytu xadri def suñ ñaari baas yi ñuy taxawal ci ngénte yi moom lañ baas foofu def laytu xadri bi woo ay jàngkat yooyu bi loolu amee ñu nekk ci nekk ci ba 2003 mu yëkkati jëwriñ ji jox ma ko. Mm-hmm. ni ma yaay jëwriñ ji comme ni ma leen ko waxee léegi rek. ba ma demee nag ba ba ñëpp joxoñ ma ma ne kon xëy na lii mbirum sëñ Tuubaa la naa naa ne ci kanam sëñ Tuubaa mu morom. Mm-hmm. ci laa nekk ci kanam moom mu di ma jàppale moog sëñ Jibi Mali mm-hmm. ñu di ma jàppale di ma jàppale di ma jàppale ba 2000 su ma juumul ba 2005. may dem Touba Kazu Rajab di ñibbi si defoon soog bu métti ci yoon bi jamono yooyu ñu ngi taxawal Kazu Rajab 2005 boobu noonu natt yooyu dalay sama kaw dafa mel dafa dalaale ci kaw euh, jàmm gën gi yëpp ndax li mu dalee ci kaw jàmm gën gi yëpp mooy 2005 boobu ci la taw bu metti boobu amoon ñu doon ko wax mbënd mi ba ñu bari ci lañ jógee fii jàmm gën tux daare bi xawoon a tas ci jamono yooyu nga xam ni ñoom jëwriñ soxna Anta Wade ñoom ñu fi nekkoon ak soxna Aminta Fall ak seen Jibi njaay ak yeneen i membre yoo xam tey amaanam bu ñu leen doon lim fi la ñuy fanaan ñu dajaloo toog fekk si ma ba fi ma tëdd mm-hmm. ñu jooy man leen ana lu ngeen jooy ñu ni ma dañoo xam ne daayira bi tas na mm-hmm. ndax bu bu ñu lalee basan gi toog li fay daje matu sox juróomi nit man leen waaye sëñ Tuubaa moo nekk loo xamante ne si maanaam da leen di won mm-hmm. da leen di won ni mu leen di wone mooy Euh, tey jii bu ngeen njalbeen gi neexoon na waaye il faut mu war ñu ni wërta neex dafa war a metti ndax Sëñ Tuubaa dara daraam neexul léppam dafa metti woon ci dundam gaa yi ni ma man leen waaw ñu dem ba laytu xadri boobu bi mu jotee defuñu ko waa koñ bi ñëpp àndoo am leen naqari ñu jooy man leen Sëñ Tuubaa amul morom nii la ko sëriñ bi bëggee ndax même bu ma dara dal woon sax man su ma taxawoon fii bëgg taxawal laytu xadri ndox mi ak ni mel fan la ñuy baas ñun moom moo ne jëwriñ wax nga dëgg de man leen jàpp ni dogal bu am rek suñ borooma ndax moo dogaloon Sëñ Tuubaa mu mu dem ndar jóge fu ñëw ndakaaru jóge ndakaaru dem ca tukkeem booba ñun maa man leen waaw ñun ne ci ne ci ne ci ba yàlla dogal ma mën a jóg yor samay beeke di di doxantu ma commencé dajalewaat gars yi am na benn jàngkat boo xam ni ku ci def Pastef la te war koo ñaanal muy sëñ Xaadim Seen Xaadim Seen nit ku gore la ku ku ku mat a ñaanal barki sëñ Tuubaa ndax moom moo ñëwaat ma waxtaan ak moom muy ñëw di àndaat ak mbooloo mi boobu man maa ngi tëdd di jàng guddi àjjuma di jàng ba minuwi saa su ne ba daayira daayira bi mbooloo mi commencé di ñëw bi ñu commencé di ñëw ci loolu bi ma tanee ñu ne ma jëwriñ bis mënta ñàkk ndax baax na ci daara man leen dinaa dem xooli jëmm ji nan ak saa sàmm ndax dama ko bëgg. ngir mu jàngal ñu gars yi ne ma loolu de sàllaw am nga yéene ji waaye mënoo ko. ndax boobu ak saa wax dëgg yàlla indi ko ci suñu barab yi xaw naa jafe. man leen sëñ Tuubaa amul morom. ma dox ci ay jéego ba fekk ko benn tali ma wax ko bis bi mu nangul ma ko te laajuma ci lenn lu dul dinaa teew. ma ñëw tegaat loolu ci loxo yi mbooloo mi. ñu ne ma àkk saa sàmb du fi teew ak mag ñi newoon ci koñ bi yépp wax ko ñu simb simb bu rëy baas fi baas bu mag njàng mi tàmbali. mag ñu bari biñ toogee ba benn heure bi dañ ne wax dëgg yàlla ñii dañuy politiquer lii rek naan ay àkk saak yooyu waaye xam nañ ñu du fi ñëw. ci lañ daal di yeewi koo ñoom daal di dem tëddi. bi yàlla dogalee àkk saa ñëw ba commencé jàng ci la mbooloom yépp dawaat ñëwaat. ñu nekk ci loolu. loolu tamit am fu mu yóbbu daayira bi muy cant googu noonu ñu taxawalaat ndax dañoo jógee ci laytu xadri ni comme xat na léegi nañ nañ commencé di jàpp cant gi di ko sant kan lañuy ñuy sant Serigne Saliou bañ koy sant amuñu sonorisation amuñu baas amuñu cin amuñu dara ñu ne ci ne ci ne ci ne ci ne ba benn jamono ñu cant cant gi mujjee cant looyee lépp biñ jógee ci cant gi. ñu daal di toog doon def suñu bilan di waxtaan fii ci sunu kër bu mag gii boobu daara ji amaguñ ko nekkagun fi biñ toogee di réunion am ko tàbbi si biir jotaay bi benn kilifa gu gu gu mag bu sell sol garam bu yooyu sëriñ Saliou di sol yor ay bijaaw mel melokaanum sëriñ Saliou waaye ñun booba nekk nañ ay tuur tànk yoo xam ni xëy na du ñu ay tuut tànk sax waaye suñu xel moo egguloon foofu ci suñu xel war na njort waaye njortul woon bi ma ñëwee wàcc escalier yi nuyu naa ko waaye ci kaw nuyu bi ma ko nuyu xaw naa ko doyalal tuuti maa ngi tuub bu baax ci loolu ndax jamono ji dafa bari ñuy wër di laaj ak yooyu moo tax ñu ci bari léegi buñ la gisee te xamuñu la rek dañuy xaw a tee ci yow mu nuyu ma ma fay ko jox ko loxo mun na sàllaaw yow de xanaa yaay jëwriñu daayira bi ba tey maa ngi jàpp ni dañ ko jox sama sama sama sama ni ma mel rek ma daal di nuyonteeg moom foofu mu daal ni ma toogal nii ci sama wet ma toog ci wetam bi ma toogee noonu ci wetam man ma yow de ku la gis xam ne yaay jëwriñu daayira bi ma ne ko waaw loolu de mbooloo mi xëy na ñoom a kii rek waaye man ku ñàkk solo la ñu toog ba mu yàgg laajagun ko luy sa yitte ñu commencé waxtaan ci réunion bi ci cant gi ñu jógee ci samedi bi dañoo jógee cant samedi. dimanche beneen dimanche bi ci des muy une semaine ñu toog di réunion mu toog di ñu déglu gars yi commencé yëkkati kàddu looy woon nañ baas sàngam lañ ci def looy woon nañ lii commencé indi bilan mu ne est-ce que mën naa ci yëkkati kàddu ñu ne ko waaw mën nga ci yëkkati kàddu mu daal ni damaa tëdd diggante tisbaar bi ma yeesalee sama njàpp ba julli damaa tëdd tisbaar ak diggante tisbaar ak tàkkusaan ma gént waa aras ay taalibe sëñ Tuubaa yu toog soxna yu toog mu nekk barab bu xat lool nag bi ma ko géntee ma daal ni xifeet yeewu te neen avant muy yeewu sax dafa laaj ne ana ñii ñan la ñun ko ñii de jërta laaj ñii ñooy waa kër sëñ Tuubaa mu ne xifeet yow bi mu yeewoo jamono yooyu bu ñuy réunion dañuy takk rajo yi ci kaw ngir gars yi dégg reñoo bi ngir ñëw ndax boo pas-pas bi demeegul nii mu daal ni bi ma yeewoo laa dégg rajo yi ma di ko topp ba egsi fii te li ma lay wax ni boobu jamonoy nawet la mu nekk góor goo xam ni góor gu màgget barki Sëñ Tuubaa bi mu ñëwee mu daal ni mankat lii laa gisoon ndax kër gi doon daje fii di fa réunion di fa defee lépp sama kër waajur la kër gu xat la demi parcelle la bu ñu toogee ñun ak góor ñi ak soxna yi daanaka kenn du am foo mën a jaar mu ne nii de laa ko gisee woon sàllaaw nii laa ko gisee woon mu daal ni waaye nag dama leen a bëgg a dénk ay kàddu yu ndaw rek ndax damaa bëgg a dem mm-hmm. mu ni dama leen di wax leen ngeen takk ko wala ngeen bind ko fii ba déwén base yooyu ngeen di wax di ngeen ko am di ngeen am sonorisation yi di ngeen am di ngeen am ay mbana mu ni loolu sax moo gën a tuur ci dama leen di wax di ngeen am sax kër daal di daal di waat ni bu amul Touba laa jóge te fa laay dellu su amul yàlla bu ma egg tuubaa daal di waat daal di jooy ñu daal foofu nag gars yi amaat tuuti àll waaye taxul ba léegi ngëm-ngëm bi demee noonu ma ni sëñ bi de man njort ni kii de xëy na dañ ko war a laajal àddiyee ci mbooloo mi ma di ko laajal àddiyee mu ni nekk sama loxo bi mu ma téye xam naa ni góor yàllaa ma téye mu daal may déy ni ma sàllaaw jaru ko de jaru ko de boo ma ko joxee duma ko jël jaru ko de ma ne ko léegi damaa bëggoon ni fasante kóllëre nga wax ma fi nga dëkk boo liggéey ñun ñu lay man di seet si mm-hmm. mu ni fi ma dëkk daanaka xam ko day xaw a jafe ndax sama benn kii laa seet si woon am ku mu wax fii fu jege foo xam ni ñun ñëpp xam nañ ni ka muy wax dëkkul dëkkul fii moom dafa am ku doon mbubboo di ko làqutoo ñu laaj ko sa numéro téléphone mu ni yoru ko ñu laaj ko foo dëkk ci tuubaa mu ni sàllaw jaru ko daan ni na ma ñaar nit yëkkati ma jóg ñaar nit yëkkati ko mu jóg bi mu jógee mu daal di wan mbooloo mi ginnaaw gaa yi gunge ko tuuti wàññeeku gisatuñ ko bi nu toogee ay kilifa wax leen ko dañoo reetaan daañu yënde dangeen xamuloo ay waaye jëmmi ku tedd ki moo fa woon muy Serigne Saliou. ban demee ci loolu at moom muy wax noonu bi muy bi muy ñëw yàlla xam na ni fekk na lépp daje ci daara ji barki Serigne Touba mu nekk lu ma lu ma yéem man yéem goo xam ni dafa ëpp ndax sonorisation pour nga dajale ko rek ndax yow li may wax nii xam nga ci dara ndax léeg ngeen am programme yoo xam dañ koy couverture mm-hmm. léeg mu demee noo xamante ni si maanaam matériel boobu tey bu ñu ko doon évaluer di ko calculer ay millions la tey te ci ci benn at la lépp. Mm-hmm. ñu dem bay dugg ci beneen at bi yeneen i bagage di gën a ñëw. Mm-hmm. may wër may wër ku tedd kooku mënuma koo gis ñun ma kooku doo ko gis jëmmi Serigne Saliou la. te boobu ku tedd ki làqu na muy Serigne Saliou. boobu làqu na ci saayir ma koy wër ñu ma kooku mënatoo leen koo gis xool nañ ko ci jotaay bu ne moo ko gisoon xàmme ko ñu ni ma kooku doo ko gis jëmmi Serigne Saliou ngeen gis ndax garam bu bi Serigne Saliou doon sol lay sol ak baylaat bi nekk ci biir noonu noonu ko Serigne Saliou daan defee noonu la ko defee bi at mi dellu si waat ci ñetteelu at bi fekk na baas yi nii nga xamante ni si dañ koy luye fu ne ñu moomal ko suñu bopp am ko bi ñuy duggaat mën naa ne ci ñeenteelu at bi ci la lépp lu ñuy cantee ci daara ji wala lépp lu nit di cantee ci daara ji mu daje ci daara bi nga xam ne société la boo xam ne tey jii kenn ku ci nekk yaa ngi ci yëngut di ci gis sa bopp ci ñi nga xam te si dañoo yor euh, mbir moomu nekk ay saxaaba ci Serigne Touba ba noppi di doxal loolu nekk ay taalibe yoo xam te ne si dañuy dox doxinoo maam Cheikh Fall doon dox doon ni ko mënuñu ko ndax dëkk bu ne dañ leen fay yebal ñu dem di fa yóbbu matériel yooyu mu nekk fonction boo xam ne fi mu toll nii loolu moo nekk première ressource bi nga xam te ne si mi ngi dundal daara ji muy matériel sonorisation yooyu ak bâche yooyu ak podium estrade yeeg décoration lépp daje si daara ji te kooku ka ko ñaanoon kenn la woon muy Serigne Saliou ay mbanak lépp am na fi kër gi ñu toog itam ci sunu moomeel la bokk ndax mën naa ne ñoo ko moom ci gàttal. kon day mel ni kooku lam ñu doon ñaanal gis nañ ko activité yooyu nag ci lañ nekk waaye ginnaaw lu jiitu loolu tam dañoo dem ba mu yàgg ñu former kuréel di dundal xaside yi di woo gaa yi ñuy répété affaire yi di tasaaroo njàng mi di xaw a yéeme ñu am fu mu téye rek am fu mu jàpp am tamit ñoo xam ne si ñoom ñoo nekk suñu référence si njàng mi te bu bu nekkoon kaw asamaan sax ñoom ñu nekk suuf sax du ñu di ko wax. muy Hizbut Tarqiyyah ku ne xam na ni Hizbut Tarqiyyah ñun buñ bëggee bàyyi laa di fonk ko fonk njàngum xaside mi ñun ci ñoom lañ koy roy ndax même bu fekkee jamono nañu suñu ab laat mënuñoo fe mënuñoo mënuñoo xam ci moom lu bari kon ñoom ci ñoom lañuy roy ci wàllu njàng mi ak doxalinu daara lépp ci ñoom lañ koy roy ba ci conservatoire bureau beeg administration lépp rek loo xalaat rek collation lépp ci ñoom lañ ci ñoom la ñuy roy ñu nekk suñu référence yu baax yoo xam ni teg nañ ñu ci yoon ci côté bu ne ndax dañ leen di woo di waxtaan ak ñoom te ku leen roy nag doo juum muy Hizbut Tarqiyyah ndax koo gis muy dem bu la ko waxee ak bu la ko waxul bokk na ci li muy roy muy Hizbut Tarqiyyah xëy na wax gi ak ñàkk wax gi moo dul am mais ñoom bëri na lu ñu def ci ñun ci wàllum njàng ci wàllum njàng ndax xool nañ seen comportement xool xool ni ñuy jàngee. xool nañuy répété xool seen organisation yëpp ñu jël ko indi ko ci daara ji ba tey jii njàng mi ñu doon jàng muy tasaaroo yàlla dimbali nañu tey bu ñu toogee di jàng lépp day daal di mën a taw féexe kon loolu moo nekk li nga xamante ne si activités yi nga xam ne daara jot na koo am ak yeneen ak yeneen yoo xam bu fekkente ne dañ ciy war a leeralaat dinañ ci gën a duggaat xuus si bu baax ba noppi nag bi ñu defee loolu ba pare ñun góor yàlla yi àndandoo doon benn soxna itam dañoo ànd ak ñun am pas-pas bu ñu gëm bañ na ko bu ñu toogee ji. ñoom dañuy toog ci biti nekk ci ëtt bi di durus foo leen fekk ñu ngi yor seeni xasida di durus gëmuñu kenn ku dul Sëñ Tuubaa kenn ku ci nekk ñu jël la fexe ba defar la ci muuraay ci sol gu sell ci wax waxin wu gàtt di jëf tamit jëf lu rëy di wax tuuti fexe nañ ba def ko ci ñoom ak góor yàlla yi ñëpp gaa yi itam fexe nañ ba ñu bëgg daara ji am pas-pas boo xam ni buñ leen nee nangam la ñuy def rek dinañ fexe ba ñëpp daje fi te kenn ku ci nekk rek du jar ñu lay wëri wala ñuy dem ci yow ndax amour bi nga am ci daara ji moo egg foofu ñu jàpp nag loolu liggéey buy dox la kon sëñ Modou maa ngi tuub baax di jégul foofu jërëjëf. kàddu yu am solo yooyu mbokk yi ñoo ko déggandoo di leen jaajëfal ba tey ñi nga xamante ni ñooy bàyyi xel Touba Vision saa su nekk ci seen émission bi nga xamante ni mooy émission guddi àjjuma gi waaye ba tey dañuy dellu si waat rek sëñ Pape ndax day mel ni bu ñu déggee say biir wax day mel ni lii di daayira Miftahul Muna 2001 la sosu 2001 ba léegi nag euh, suñu borom def na ne fukki at la ak juróom-benn waaye ci biir loolu dégg nañ jéego na jéego yu am solo yoo xamante ni ku ne war na koo bàyyi xel rawatina euh, daayira yi nga xamante ni ñoo féete fii ci ndakaaru day mel ni liggéey Serigne Touba niñ koy faral di waxee saa su nekk tànki kanam lay am waaye wërta am tànki ginnaaw ndax lim nga fi léegi ay jumtuwaay yoo xamante ni jumtuwaay yu daara ji la waaye lépp mu doon loo xamante ni amaan lu amal njariñ daara ji la te bu jéego amul woon loolee du am waaye fi ñuy dikkaat rek ci ak tënk nga wax ñu dëgg dëgg dëgg dëgg programme daayira bi nga xamante ni mooy Miftahul Muna euh, buñ ciy jógee mën a seqiwaat yeneen i laaj yoo xamante ni war nañ ko amal programme mu daayira bi. waaw jërëjëf sëñ Modou ba tey loolu ñu ngi la ci. gën a jàjjiwaat rek ndax li nga wax ni am na solo lool ci ñun ak fàttali lay doon waaye ba tey itam may nuyu bu baax sama waajur Baye Abou njaay mi nga xamante ne si moom tey fu liggéey bi tool rek moom la ndax këram lañ daan daayra di toog ci ëtt bi di leen tànqal di leen sonal nit day tawat sax te du tee dañuy jàng tolof tolof sax dafay am te du tee dañuy jàng xasida yi ba bi yàlla dogalee sax ñu nekk fii moom bokk na ci li ko gën a naqari ndax kër ga waruñu foon a jóge ci laa ko leerale nag ni ko liggéey Sëñ Tuubaa ay ay tànk la yor yu dox xëy na dañoo dox rek ba yàlla dogal ñu si fii nii moo tax itam nii rek la mën a demee mu nangul ñu ko baax kon moom itam ñu ngi koy ñaanal baax suñ borom yàggal ko fi te wéral ay cërëm bu baax a baax a baax a baax ci barki Sëñ Tuubaa di siyaar tamit kilifa yi toog sëñ Seex Ndaw Baay ku ne xam na ko ci télé ak rajo yi activités yi mu ciy def di nit ku oyof koo xam ne dafa nekk membre ci daayira bi di ànd ak ñun fu mën a jëm itam buñ ko woowee day bàyyi ay jéegoom ñëw te suñ morom waajur la ñu ngi koy siyaar bu baax sëñ Assane Ka mi itam mi ngi nii toog ci jotaay bi ñu ngi koy sant bu baax di ko siyaar ndax nekku fi mu ngi extérieur waaye bu ñëwee day ànd ak ñun ci liggéey bi kon noonu la ñuy santee rek balaa ñuy dugg ci activité yooyu ngay wax noonu la ñuy santee tamit rek ñi nga xam te sii ñoom ñoo fi teew ku mel ni Modou Karaame sama xarit la sama wëllëre la bi mu déggee maanaam waxtaan wi rek dañuy incha allah kenn du ma fa jiitu dama fay teew ak suñu waajur Ndumbe Soumaré ak maire yu àndal yëpp muy daayira maam jaara bi nga xam te ne si ñun ak ñoom benn lañ dunu ñaar kon ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ak suñu baay Mamadou Sarr ak euh, baay Morba ñooñu munuñu leen a fàtte ndax ay membre daara ji te ñoom ñooy bànqaas yi ñoom ñooy keno bi kon daara bi moom activité yi daara bi ak programme bi ni muy tëddee mooy dinañ daje incha allah dimaas bu jot cinq lañuy daje buñ daje durus xasida yi ba waxtu jàng jot yëkkati ca kaw kuréel 2 bi ñu woo leen ñu ñëw toog jàng buñ jàngee ba six heures moins wala six heures kuréel 1 bi jël suñ jëlee ba timis ñu taxaw julli timis buñ jullee timis ba noppi ñu daal di jàngat tuuti jox kii doon soññee léegi di sëñ Abdoulaye Sarr di tu tànk bu baax boo xam te sii si ma nga jógee ba Bambey ñëw ànd ak ñun ci liggéey nekk fi yor fi daara nga xam ne si membre la ci daara ji bu ko defee moom mooy jël soññee bu baax a baax a baax bu ko defee loolu itam après foofu la ñuy taxaw jox keneen daayra soo liggéey ñu dem ca kooko nekkaat ak moom waaye itam day mel ni guddi àjjuma yi tamit bokk na suñ suñu programme maanaam sax guddi àjjuma dañuy daje fii ci daara ji di ko fi dundal mu néew mu bari bu noppee mën a yeewi jotaay boobu kon activité daara bi daal ci programme noonu lay noonu noonu lay tëddee. jërëjëf sëñ ba tey dañuy dellu siwaat ak yow ci euh, fii nga xamante ni fi lañ nekk day mel ni ndaw ñi li ci ëpp solo ñi ci ëpp bokk jamono ji euh, suñu borom xiir na leen ci leneen. waaye boo xoolee daayira Miftahul Muna ay ndaw a ci ëpp suñu borom xiir leen ci daara ji day mel ni yaatu na lool ci liggéey bi euh, ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk euh, doon ay jàmbaar lool ci xasida yi ak liggéey bi day mel ni fii euh, ku xam gox yi ñu nekk rek xam ne tuxu yàmbaa bi bari na fi ak ndaw ñi nga xamante ni dañ fee nekk jaar beneen yoon amaana loo xamante ni ah, kenn mënu koo wax ngir jubadi gi ci ak tënk rek euh, ku ne xam na fii ñu nekk muy diwaanu jàmm gën euh, deme na neneen noo xamante ni euh, néewaan na nga fiy ñëw fekk fi ndaw ñu mel nii ñu toog seetlu lool kenn yitteelu leen lu dul sëriñ bi nekk ci xasida yi te lu luñ ci def di ko xeeb te loolu wax ngeen ko seeni biir wax defaru sëriñ saaliw la loolu naka ngeen di dundee ak gone yi nga xamante ni dañoo dëgmal lépp bàyyi bàyyi fubal bàyyi tux bàyyi jataay yoo xamante ni comme ni ko sëñ Tuubaa di waxee ci tasawudu sixaar wajtani bu majaalisa saqaawa euh, day mel ni ndaw ñi dañoo dégg loolu ñëw fekk si sëriñ bi ci wooteem bi ana tey ndax ngeen dundeek ndaw ñi ci euh, loolu waaw jërëjëf sëñ Modou kàddu yi ma laaj am na solo lool te sawar naa di ci tontu ndax day mel ni ñun ñi nga xam ne ay jëwriñu daayira lañ wala ay soldaar suñ Tuubaa lañu ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ak mbooloom daare bi ma àndal di ay kilifa yoo xam te ne si ñoo ne ci biir daara ji ñu ngi defar ndaw ñi waaye ci biir defar bi day metti lool léeg day metti ndax ñi nga xam ni bëgg nañ ko te am amur bi bëgg a baax ñoom ñoo ngi ci yoon woowu di baax di dem léeg itam ñu jël nit ku xaw a yées ku yéeme lool defar la ba ku la gis itam dootu la xàmme fu la xoolee dañ lay xoolaat ndax li ñuy njëkk def ci yow mooy bu ñu xamee ne yow noonu nga mel te am nga amul ñëw gars yi ñu ñuy njëkk def mooy boo ñëwee rek laxasaay ngay njëkk a bëgg donte mën nga ko jënd mënoo ko jënd gars yi dinañ ko jël jox ko ngir am amul boobu. ko defee liggéey boobu noonu ci lañ nekk di ci liggéey waaye itam sëñ Modou mu nekk liggéey bu metti liggéey bu metti boo xam ni xam nañ ni sëñ Tuubaa moom fa mu tegoon tànkam mu nekkoon lu metti jàpp nañ ñun buñ fa tegee suñu tànk itam day metti comme noonu moo tax da ngeen jéem a jël ndaw ñag di leen defar waaye léeg ci biir ndaw ñoo ñuy defar seeni waajur ci boppam ñoom ñooy tasaaroo maanaam ñoom ñoo dul xam ñu bëgg wala luñ gëm ndax léeg nga jël benn soxna defar ko ba muy muuru sell lool bu demee këram waajuram ni ko doo fi muuroo bañ ko lool léeg tam nga jël ndaw loo xam te ni si danga koy bëgg a laxasaayul ngir muy liggéeyal Sëñ Tuubaa seen waa kër di am nu ñuy waxeek moom di am nu ñuy wax moom ba pas-pas bi wàññeeku. maanaam bàyyi laa di ngay sol ak da ngaa teel a ñot di affaire mag ak nangam nangam yooyu lañuy wax soxna yi di ko wax góor yàlla yi ba ñenn ñu rocceeku mais ñu am pas-pas dëgg dañuy des toog. ndax boo xoolee tey tout tànk yi fi nekk ñoom ñi ñëpp kenn ku ci ne am na fun la jëlee mu néew mu bari am na ñoo xam ne dañ leen daanañ leen fekk ci leneen fekk leen ci babi wala ci leneen ñu woo leen xëcc leen bañ am amuru bëgg sëñ tubaa di ko liggéeyal xam tamit valeur bi xam kan mooy sëñ tubaa loolu def nañ ko ci ñoom waaye itam boo xoolee tey ndaw ñi tey nii ñu toogee nii tey nga xam ni yëpp ay ndaw lañ kenn ku ci nekk am na fu la fekk jël nañ la indi la waaye nag ci kaw liggéey boobu noonu ku nar a am ndimbalu sëriñ bi rek moo ñuy fekk si ci loolu waaye ku ko nar sa am ku nekk doon ci mës a fekk si donte dañ lay xëcc ngay bañ itam doon ci mës sa fekk si donte dañuy jël ay millions sax wala ay milliards di la neexal ngay bañ. doon ci mos a fekk ndax amoon ndimbal waaye loolu moom jàpp nañ ni ñun ñu ngi ciy bay suñu waar bu baax a baax a baax a baax lu mu gàtt gàtt gàtt daara ji su matul ñetti téeméeri nit jege nañ ko yoo xam te ne si ñun ñoo leen defar amaan tey bu mbooloo mi yëpp ñëwoon tey duñ xaj fii tey boo xoolee soxna yi xool góor yàlla yi bu ñëpp daje woon fii tey duñ xaj fii tey ci kër gi te ñoom ñëpp kenn ku ci ne ba ci man sama jëmm ji am na fu ma nekkoon am na ci lu ma nekkoon. waaye dama ko jiital ci sama bopp man mu wàcc nag ba ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am loo gëm léegi am looy dund am loo xam te ni si yaa ngi koy bàyyi xel muy lan liggéey ku tedd gi Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. tey comme ni ñu leen ko waxee sànq day mel ni daayira suñu Cheikh mbàkke moom moo ko sos daayra dañoo war a dox ci jàngale di yee ñi ci nekk wax leen li ñu jàpp mooy lan ba xam daayira bi. taxawal na loo xamante ni day jàngal ñi fi nekk ku ci xamul woon sa diine daayira bi dox ci ba nga xam sa diine ku ciy ñëw te mënoo liir daayira bi dox ci ba ngay mën a liir di jàng arxaan di jàng ci xasida yi ba xam daara ji mi ngi dox ci wàllu woowu. waaw jërëjëf sëñ Modou loolu am na solo lool ndax ku xool xam ni ku tedd kooku di naa Muhammad dafa am lu mu kàddu yu mu fi bàyyil lu mu wax muy talabul xilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima te loolu jàpp nañ ni képp ku ci doxul rek yaa ngi teggi sart yi Seyduna Muhammad ndax moom ndigal suñu borom lay demee te loolu jàpp nañ ni buñ sosee daara ju toll nii nekk ci liggéeyal Sëñ Tuubaa te kenn mënta xam farata wala kenn mënta xam sunna jaadu woon na ñu tas daayira bi nekk ci leneen fi mu toll nii liggéey boobu ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ndax dafa am culturel bi ñoo xam ñoom lañ ko dénk sëñ Xaadim Njaay mais di seen jëwriñ sëñ Ablaye Sarr mii di oustaz ci daara ji ak jëwriñ ju baax di sëñ Moustapha Diop nga xam dafa jóge ba Touba di jàngal soxna yi fi mu toll nii am na soxna yoo xam tey soo leen laajoon fii tey ci téere yi bari ci sëñ Touba mën na la cee wax lu bari te bëgg naa incha allah bala jotaay bee jeex ñu am question yoo xam ne leen ko posé ñu tontu ko ak ay góor yàlla ndax gaa ngi jàng ci xam-xam bu baax a baax a baax ci daara ji am na waxtu yoo xam ci lañ koy tàmbali muy 5 ba ba 22 heures ku ñëw ñu jàngal la nga dem loolu itam daara jàng ci dox bu baax ba léegi ñu ci bari xam nañ seen farata ñi fer woon iji fer nañ ko ñi wàcce woon kaamil fexe nañ ba ñoo ngi ci di ko wàcce ñi jànguloon xasida itam fexe nañ ban jàng ko kon activité la boo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax baax a baax. Mm-hmm. mooy day mel ni suñ jamono ji ñu nekk nii euh, gis nañ it léeg-léeg da dem ci barab yoo xamante ni dañuy gis ay soxna di jàng xasida euh, di ko yëkkati te loolu boo xoolee euh, gëstu nañ waaye ba tàyyi néewaa na koy dégg mu ne sëñ Tuubaa da ko daganal bëriwul. kilifa gooy toog waxtaanal mu leeral ne la Sëñ Tuubaa de daan na ko defloo ay soxna te dégg nañ say biir wax am na soxna yu fi ne ñi ngi jàng xam-xam. jërëjëf sëñ Modou euh, ñun nag ci li dox mooy fexe jàngal soxna yi xam-xam boo xam ni xam-xamu biir lay doon boo xam ni da di jariñ di jariñ keneen koo xam dinañ ko ko mën a déey mm-hmm. waaye nekkul xam-xam boo xam ni dañuy toog di kuréel di jàng xas yi ci kaw. wala yooyu maanaam loolu daara ji doxu ci ndax ñun lépp loo xamante ni si rek gis nan ay nit ñu koy def balañ cee mën a am ndigalu di ko def dañ koy gëstu ba noppi te bin gëstoo soxna yi ñëw bëggoon a toog di kuréel man leen baax na dégg naa ko ñu dem gëstu ji ko ndax man naka jekk xam naa tam jigéen moom ci lislaam am na fu niveau mu egg waaye am na fu mu eggul loolu moom ñëpp xam nañ ko waaye ci ay teggin rek man leen danaa gëstu lu yàgg la nag bi ma demee toog kilifa gu mag laaj ko ci ñu waxtaan ci ma ne ko damaa gis am daara yoo xam dañ koy def nee nañ seen diwa leen ci jox ndigal nangam nangam mu expliqué ma ni ma loolu ay caaxaan la ndax ku tedd kooku di Serigne Saliou gars yi mas ñoo dajaloo dem ci moom ni ko Mbàkke njàngum jigéen mi lañ jàpp ni maanaam lu baax la wala lu lu daganal la ci yoon wi wala gaar yi ñu koy def ci seen sañ ak seen yëg-yëg mu daal di jël kaala gi daal di mur gémmiñ gi daan leen sàllaaw de loolu képp ku koy def képp ku ngeen gisati mu di ko def jar na ngeen sol ay dàlli weñ di daw ba dàll yi jeex moom fu loolu la leen tënkal ci ay teggin moom Serigne Saliou kon day mel ni njàngum jigéen moom ku ne xam na ni moom baaxul moom loolu moom ñëpp xam nañ ko moo tax bi ñëwaatee nag ñu tegaat loolu ci loxo mbooloo mi ñu nekk ci di jàng beneen njàngin moo xam te sii si bokkut ak toog kuréel di def yu mel noonu kuréel moom fii ci daara ji kuréel yi fi nekk yëpp ay góor yàlla ko séq waaye du ay soxna noon noonu la demee ñu ngi tuub baax jégalu macha allah kàddu yi leer na sëñ Pape te am na solo lool waaye day mel ni dégg nañ seen biir wax programme bi nga xamante ni mooy programme mu daara ji day mel ni bokk na ci bis bi nga xamante ni ñi ngi koy def euh, di ko def euh, chaque at mu doon cant Serigne Saliou goo xamante ni ñi ngi ko fi amal waaye dañuy dikkaat ak yow euh, léegi rek nga am laaj boo xam dañ la koy laaj ngir ñun ay taalibi Serigne tubaa lañ. te ay murit fu ñuy tase war nañuy dàq bëggug sëriñ bi mm-hmm. boroom xam-xam mag di ñu ko waxee ne euh, jàng ba fees dell fexe ba xam li sëriñ bi bëgg nga koy doxee mu ëpp solo day mel ni social mënta ñàkk ci daara mm-hmm. ndax day mel ni moo waral sax euh, bokk na ci li waral euh, sëñ seex sos daayira ndax day mel ni am na sartu daayira bu ñu bu ñu mësa yër gis nañ ko ci bu wér ci dox gi nga xamante ni daayira yi war nañ di ko dox ci social ba xam daayira bi mi ngi góor góorlu bu baax ci social ndax day mel ni bu fekkee ne dañuy ànd ngir sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa tax war nañuy góor góorlu ci jëmm yi di góor góorlu ci muritu sëñ Tuubaa yi nga xamante ni amaana sëñ Tuubaa képp leen ñor ñu ñëw fii ci daara ji di fi amale liggéey boo xamante ni dañ koy jooyale jëmmam ja kon war na it léeg-léeg ñuy xool képp koo xamante ni tawat na ñu fexe nu ñuy def ba sa jàngoro saafaraw képp koo xamante ni maanaam leneen gaar na la loo xamante ni daayira bi war na cee defi jéego mu fexe cee defi jéego ci niñ ko mën a tënkee ba xam daayira bi ñu ngi góor góorgóorlu baax a baax a baax ci social. jërëjëf suñ Modou kàddu yooyu tam am na solo loolu wax dëgg yàlla euh, ñuy profité di siyaar sëñ Tamsir Mbaye mii di doog a ñëw nga xam day suñu wëllëre bu baax wax dëgg yàlla. lu mu yëg itam day daal di teew ndax moom lii may wax nii ci daara ji moom ma ko gën a xam ndax ñoo ko sosandoo loolu moom fekke na ko te xam na ko te li may wax itam mi ngi nii toog lu amul seede baaxul kon ñu ngi ko siyaar bu baax si suñ Tamsir di wax ni social boobu nga wax ñun moom fi mu toll nii ñoo ngi ciy dox bu baax ndax dox social bi mooy tey ji tey lii lii daara ji dajal tey ci ay matériel loolu rek dafa doyoon sëkk social ndax kuy xew tey ñu defal la bagage yëpp jox la ko rek loolu rek daa doyoon social waxuma la ak lépp ñun ñoo koy def bu dee wàllum xew la bu dee wàllu jafe-jafe itam ñun ñooy yëkkati sunu alal dajale ko jox la ko te ma sàmb du yëg ma demb du yëg loolu léeg-léeg tam day am léegi itam jafe-jafe am boo xamante ni si sax dañuy jël lañu waroon na ziyaare ji kees ga jël ko def ko ca jafe-jafe yooyu ca mbokk taalib bu mën a dal bu ko defee dañuy toogaat duñ dem ziar ndax dañoo tënku ca wax ja ñu waxoon ni kat sëriñ bi waxoon na ni kat képp koo xam ne yaa ngi ñëwat ñëwati di ma ziar te ngeen bàyyi fa ñu am ay jafe-jafe na ngeen leen ko jox kon ñun ci noonu la ñuy dundee buñ joxee suñ alal ba mënatuñ ko dañu yëkkati la fa nekk ca liggéey ba ñu jël ko jébbal ko mu nekk social loolu moom maanaam ñu ngi ciy dox bu baax ndax am ay téyeer yoo xam ne ñu ngi ñaw di def leen képp kuy xew dinañ la woo ba nga ñëw ñoom sëñ As Ndiaye ak gars yi yëpp ay téer lañ dangay ñëw ñu ñawal la li nga bëgg lépp te doo fay dara te loolu ñoom yàgg nañ koo def du tey social la boo xam ni bokk na ci li gën a sawarloo nit ñi ngir ñu bokk ci daara ji bokk na ci tey loo mën a xewle lu mën a doon dañ lay taxaw ba mu jeex ñoom ñun ñooy baas ñooy togg ñooy jàng bu dindi baas jotee ñoo koy dindi lemaat lépp ba mu jekk ñu indi ko ci daara ji te lu toll ni transport duñu la ci laat lu toll ni tarfatal ay te foo dëkk fu mu mën a doon ñeme nañ la faa fekk defal lu social boobu noonu jërëjëf sëñ Modou. jërëjëf sëñ Pape ci kàddu yu am solo yooyu xam naa ne dinañ dikk ak yéen léegi ci eh, suñu mbokk soxna yi nga xamante ni ñoom it eh, ci jataay bi la ñu bokk eh, dékk leen suñu micro ñoom it ñu wax ñu dëgg-dëgg lu ñuy dindee lu ñuy dundee liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey bi nga xamante ni ci lañ tàbbi te tubaa Touba képp tax. waaye laataa loolu rek sëñ pap day mel ni say biir wax dégg nañ amaana nga wax ñu nañu ñu mel na ni am na programme boo xamante ni mi ngi koy wàcc euh, chaque at. Euh, di ko amal fii ci euh, diwaanu gën di ko jooyale jëmmi Serigne saaliw ana bis boobu nu muy demee ak kañ lay doon ak nu ngeen koy amale bis boobu maa ngi profité sax di ci delloo njukkal waa gën gi yëpp ak si Mbao ndax. ñàkk ñaan gi nekk ci ñoom ak ànd bi ñuy ànd ak ñun ci bis bi maa ngi leen ci sant bu baax bis boobu day mel ni bis la boo xam ne ñun ñoo koy taxawal di ci sant Serigne saaliw ku ne xam na ni sant Serigne saaliw nag jubluwaay mooy sant Serigne Saliou waaye ku ne xam na ne alxuraan ak xasida lañ fay jàng di fa sikar di fa def lépp li nga xamante ne sii rek moom méngoo woon ak li Serigne bi bëgg. noonu lañ ko fay defee comme ni nit ñuy taxawalee ay journée culturelle wala leneen ñun ci loolu lañu nekk maanaam daray caaxaan raxu ci jàng xasida sikar fàttaliku Cheikh Ibra yaa ngi déglu buñ ci noppee ci loolu ñu daal di nekk ci njàngum xasida ni te cant gi itam cant la goo xam ne mosuñu ko tuddee nitu àdduna ba mu sosoo ba tey kilifa lañ koy tuddee ci yoon wi moo xam bu ñëwee ak bu ñëwul ñu nekk ca lañ nekkoon noonu lañ noonu la ñuy defee cant gi du cant goo xam daal dafay am ay ay ay ay pëcc xoog yu demee noonu loolu cant ñu ñun cant googu ñun cant gi ni cant mooy sant Serigne Saliou ba tax na saa bu ñëwee rek nit ñi dañ ciy sawar ko ànd ak ñun ndax fii lañ ko daan baas ci biir koñ bi di dema dem ba xaju fa ñu am fu ñu ko yóbbu woon ñu dema dem ba xajul foofa ñu génnewaat ko def ko biir Sicap Mbao ci wet pharmacie Pape Djibril faal ci terrain boobu lañ koy def fi mu toll nii cant googu nag mel na ni jàpp nañ ko te bëgg nañ yéen ñii ngeen jàppaleñ ci bu baax médiatiser ñu ko ci nii ngeen koy defee ndax yéen ay murit sëñ Touba ngeen barke sëñ Touba ay nit ñuy liggéeyal sëñ Touba ngeen ndax Touba vision moom ku ne xam na ni signal signal bi képp moo egseegul waaye mi ngi daw fépp ci àdduna bi fépp fu yeneen tele yi egg télé privé yi ne ci dëkk bi fu nu egg ñoom egg nañ fa ci internet site internet bi ñu ngi daw fépp kon yéen tamit. il faut ngeen jàppale ñu bu baax a baax a baax ñun itam ñu leen di ñaanal ci kàttanu yàlla ak mbaaxam balaa yàgg dara yàlla na signal bi ñëw ngeen ubbi télé ñu leen di fekk ci studio yi ndax lii ngeen defal nit ñi day man jàpp naa ne ñu ne lu ñu jomb la barki sëñ Tuubaa ngeen jël ko defal ko suñu jëmm ji kon ñu ngi leen di sant ci loolu bu baax ndax yéen de jëloo leen Touba rek mbubboo ko di bëgg a def li ngeen def déedéet dangeen ngeen koo jël ngir jëmmi sëñ Touba ndax bi ngeen di ñëw yéen a indi seen bopp te bu ngeen dem itam yéen delloo seen bopp. te amul benn santage bu ci am wala lenn loo xamante ne si woo ngeen ñu ci ci lenn amaana bu amoon sax xëy na duñ ko wax carrément ba nit ñu dégg ko waaye kon lii ma wax itam duma ko wax ndax su ma ko waxee ak ay nar lay doon te nar moom ku ne xam na li ci nekk moom jaaduwul kon ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan la 6 mai ngeen jàppaleen ci cant googu bu baax a baax a baax le 6 mai incha allah ngeen gën ñu see jàppale bu baax di ci woo nag mbokki taalibe bi yëpp mbokki dëkkandoo yëpp bàyyiwunu kenn bu nu limee rek dinañ juum waaye ñu ngi ciy woo ñëpp mm-hmm. jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, sëñ Pape jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante ni ñoom ñooy teewlu Touba Vision saa su nekk comme ni ñu leen koy waxee rek saa su nekk moo xam ci réew mi la moo xam ci bitim réew ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ci topp gi nga xamante ni yéen a ñu koy topp dégg ngeen ko noonu euh, ko jëwrin waxee muy sëriñ Pape Ndiaye di kaddu yu am solo yoo xamante ni euh, yëkkati na ko mu doon kàddu yoo xamante ni sëriñ Touba képp a tax sëriñ tubaa kott moom képp tax mu koy wax. ngir yëg-yëg bi nga xamante ni ak gisin ki nga xamante ni gis na ko euh, seen scène bi nga xamante ni mooy Touba Vision di ko doxee di ko dundee waaye loolu lépp dañ koy def ngir dàkk bëgguk sëriñ Touba di ñaan ñun ñëpp kenn ku nekk pasas bi nga am yéene bi nga am ci liggéeyal ci Serigne Touba yàlla ko Serigne Touba defal waaye ba tey dañuy dañuy dikkaat rek euh, say kàddu yu tëj euh, looy gën a ñaaxaat mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom nga nekkal. ci daara ji nga xamante ni mooy daara Miftaahul Muna ndax day mel ni liggéey bu sëriñ bi teg loxo la ndax comme ñu leen ko waxee rek euh, bokk yi dañoo doon ñu jàmbaare ñoo xamante ni ñi ngi fii ci quartier Abdou Ndiaye jàmm gën mu doon daayira boo xamante ni de amaana njëkk leen a jóg taxut it nga yem ak ñoom moo waral Touba Vision seppil leen daara ji ngir liggéey bu sell bu am solo bi nga xamante ni ñi ngi koy taxawee fii ñu ne mu doon liggéey bu ràññeeku boo xamante ni dégg nga ni mu ko waxee léegi ci seen bis boobu nga xamante ni ñi ngi koy amal at mu yàlla sàkk mel na ni waa Touba jàmm gën ñëpp di génn di ci ànd ak ñoom waaye loolu dara waral ko lu dul taxawaay bi nga xamante ni. am nañ ko ci liggéey bi nit ñi it comme niñ koy waxee euh, dofuñu sëriñ bi rek la ñuy xeeñcu te dañuy jàpp ne fu ñu ko gis amaana dañuy dem jàpp ci ngir sëñ Tuubaa ana tey laka naka ngay ñaaxaatee ndaw ñi nga xamante ni dañ fee nekk ngir sëñ Tuubaa di liggéey liggéey bu sell bi ngir loo leen di waxaat ñu gën a jàppaat ci liggéey bi ndax day mel ni mënta mënta mënta ñàkk ci soññee ndax fas du ma daw daw du du du du ñàkk ci léeg-léeg mënta ñàkk nga koy làbbaliwaat ndax it eh, loolu bu amee rek ndam day am ndax ñëpp Serigne Touba leen fi indi. su muy dem du ñàkk ñu ne jëwrin diw moom moo nekk ca bopp ba jëwriñ nag buñ la ko waxee ku ne xam na ne sas nañ la doon na loo xamante ni lu lu metti la waaye day mel ni bu kàddu jubee rek. képp ku ci nekk rek bu jëwriñ waxee day mel ni kàddu jëfe lay doon tey naka ngay ñaaxaatee ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liggéey bi. jërëjëf hmm. sëñ Modou ci kàddu yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla yëkkati nga ko jëmee ko ci ñun loolu lu ma sawar la te lu ma doon xaar la wax dëgg yàlla euh, di ci profité rek di sant suñu waajur yi nekk ci biti nga xam ni bay nañ ci seen waar bu baax ci yombal gi ñu yombalal seeni tuut tànk ñëw bokk ci daara ji ñu bàyyi leen ñu nekk ak ñun léeg-léeg ñu jàngi sax ba xaaju guddi bu ñëwee kenn ku ci nekk boo fëggee rek da nga lay kenn du la wax dara kon loolu tam ñu ngi ko ci sant bu baax sunu waajur yi ci biti ñi ngi leen ci sant ñoom ñëpp bàyyiwuñ ci kenn di wax ni gars yi moom macha allah ay soldaaru Serigne Touba lañ damaa jëleel soldaar sax mais wallaay ay saxaaba ndax dox bii ñuy dox nii ñoom doxu saxaaba la barke Serigne ndax seen yitte yëpp daara ji la man kay fi mu toll nii ki ma mën a dàgg tey di la mën a ñaaxaat. sax day bokk ci ki nga xam te ne si da ngay a ñëw amaana waaye gars yi moom wax dëgg yàlla sëñ Modou ñii ay jàmbaar lañ ay jàmbaar dëgg dëgg dëgg lañ te gars yi dañoo bëgg sëñ Tuubaa bëgg xaside yi koo ci gis mu ngi làmboo xaside yi di ko durus bu wér kon li ma leen dool rek mooy fas lu mu daw daw daw du tee ñu làppali ko ñu gën a góorgóorluwaat ci liggéeyal sëñ Tuubaa bi te gën a jàppaat liggéey bi te xam ni lu dul liggéeyal bi liggéey bi da koo gën muy liggéeyal ndax bala ngaa xam li nga liggéey Sëriñ tubaa nga dugg biir bàmmeel fële lépp di leeree te jëm a ngi noonu joo xamante ne si ku ko topp say mbir lépp day leer ndax ku xool Cheikh Ibra Fall bi mu demee Mbàkke Kajoor di jébbali ci ku tedd ki jamono joojo ak tay jii wuute na la mu wuutee mooy dafa jël lépp jox ko Sëriñ Tuubaa dem dem na sax ba di ko méngaleeg yàlla suñu borom ndax gëm gim gëm Sëriñ Tuubaa tey moo may li tey Cheikh Ibrahima Fall tey li mu am tey jamono jëmi jébbul tey bari na ñoo xam ne ku leen waxoon ñu ren jëmmi jamono ngi ñëw Cheikh Ibrahima Fall dina mel ni ñu weddi ko ay doomu aadama kon ñun suñ référence kenn la ginnaaw ban bëggee Serigne Saliou Mbacke gëm ko fonk topp ko moom Serigne Saliou dañoo jël Cheikh Ibrahima Fall teg ko suñu kanam barki Serigne Touba donte ni ko kii taalibe njenn la kee leneen la dañoo jël Cheikh Ibrahima Fall teg ko suñu kanam ndax mooy Baabul Muridina mooy bunt bi nga xam te ne si mooy buntu ku tedd ki di Serigne Touba moom lañ jël teg suñu kanam gars yi jàpp ko fonk ko man nag boo gisee gars yi am pas-pas am passeef du dara lul man mii nga xam te ne si tey ñoom dañ maa jël ni ma yaa ne ci kanam damay taalibe Cheikh saa jenn bokk ci waa Ndiène yi te ñooñu dara caaxaan nekkul ci ñoom chaque jour dañ lay ñaaxaat. ba noppi ñu gisaat fi ay taalibe yoo xam ne ay Baay Faal lañu te gis nga daara joo fi gis muy dem te amuti Baay Faal nan jàpp ni ñoom ay yambar lañ barki Sëñ waaw ndax daara ju amul Baay Faal rek nan jàpp ni ay yambar lañ tekkiwun dara Baay Faal nag fu mu nekk rek loolu day dem waaye fu mu newul dara du fa dem barki Sëñ Tuubaa kon gaa yi wax dëgg yàlla maa ngi leen di soññiwaat bu baax ñu gën a fonkaat liggéey bi gën koo jàppaat bu baax ndax lii ñëw fii tey maanaam lu kawee la ci ñun lu foor la ci ñun wax dëgg yàlla def nañu benn bànneex boo xamante ne si ñun sax ñu leen ko wax waaye lii lépp day doon loo xamante ne sii dafa mel ni ñun dañuy doog a commencé ab liggéey te yàlla buñ ci gis suñ bopp ci barkeb Serigne Touba kon sëñ Modou sant naa la bu baax gërëm naa la jërëjëf. jërëjëf nga tàggoo rek sa kàddu yu mujj. waaw kàddu yu mujj mooy maa ngi sant mbooloo mi fi teew yëpp rawatina kilifa yi fi teew yëpp te ma leen léegi. maa ngi leen sant bu baax di santam kilifay daara ji ndax daara ji dafa am ay bànqaas yu ko téye yoo xam ne ñu ngi ci biir daara bi ne ci kuréel gi nekk ci yeneen activités yi ku mel ni sëñ Jibi Ndiaye moom mi nga xamante ne si moo yor wàllu sonorisation bi ñu ngi koy sant sëñ Xaadim Ndaw lépp loo xamante ne sii rek lu ñuy denc la ci wàllu alal lu mu mën a doon trésorier moom la ak sëñ Basiru administration sëñ Maguette ak sëñ As Ndiaye ñu ngi koy sant ak sëñ Xaarim Ndiaye culturel ñi ngi leen sant ak sëñ Baara Mbay organisation ak suñu ustaas bu baax bi sëñ Ablaye Sarr di santam jëwriñu soxna yi soxna Fatmata Cissé ak ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di santam sëñ Njaga mi nga xam ne fépp fu matériel yi jëm ak sëñ Mouhamed ak sëñ Aswad ñoom ñooy soldaar yi nga xam te ne si ñoo ko fa yóbbu kon ñoom ñu ngi leen di sant ak tout tànk bi ma dendal sëñ mataar Sarr xale la. bi mu bokkee ci daara ji yàggul ñoom ñëpp biñ ci ñëwee yàggul genn yàgg gi buñ ci amee ñeenti at wala juróom ci la yem waaye ñoom fi mu toll nii bépp liggéey ci daara ji coordonné ak lu mu mën a doon mi ngi ci seen loxo ñoom. kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di bokk di leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan lii at mu jot yàlla nañ ko amal te di ko ànd ak sëñ Modou Faye su boobaa ñu indaale télé beeg lépp ñu def fii émission bi maanaam ba mu gën a kawee ci barkeb Serigne Touba. di sant soxna yi di sant sama waajur yi fi teew yëpp bàyyiwunu kenn xam naa balaa ngeen di bàyyi sax bëgg naa ku mel ni bàyyi Cheikh Ndaw donte ñaari baat la sax moom tam mu sànni ko ci bu ko defee ñu mën a yewi jotaay boobu ay sikarkat tam ñi ngi laa ilaa ilaaha لا إله إلا هال فلا إله إلا لا ndimbaloo faal yërmande dooley biir faal ak bida sëriñ Cheikh faal mboor faal yàlla daal faal nga yango basiro faal alquran yàlla daal faal nga yango

ربنا صلى الله نبي لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله يا فال ربنا lamb faal baabil muridina jam ñi yaa lamp faal baabil muridina fi réer ko nginde laa ilaha illallah fa muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi aji jàmm yëpp faju barke maam Serigne Fall ñu ngi siyaar bu baax waa Touba Vision di leen dalal jàmm di leen jox seen wàccuwaay télé bii nga xamante ni mu ci internet bi yàlla na doon international vision nag ku ko dégg ci baatu tubaab mooy ay gët gëti nag ki mën a jàkk mooy Sëñ tubaa kon loolu leer na am nañ ci xel bu baax ni fi ngeen bëgg a yegg di ngeen fa yegg ci doole yi Cheikh Ibrahima Fall Lamp barki maam Serigne Fall daara ji nag ngeen ñëw muy daara Miftaaxul Muna ñun danoo bokk ci daar ji ni ko jëwriñ waxee léegi programme am nag mooy liggéeyal sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacke te programme bi dara jiituwu ci lu dul màggal Touba. cant Serigne Saliou jàngal jaam ñi xam-xam diine ak farata ak sunna ci loolu la daara ji di dox loolu mooy programme bi programme nag bari na xeeti programme yi bari na waaye programme daar ji tënku mooy ànd liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké loolu mooy programme bi rëy bi gën a rëy ci daara ji am na yeneen i xeet nag yoo xam ni buñ ko doon def ay pàcc duñ fi jóge kon dañ koo tënk rek programme bi mooy liggéeyal Serigne tubaa Serigne Saliou Mbacké ndaw ñi ngeen fi fekk nag mooy ndaw ñi nga xamante ni dañoo sóobu fas yéene liggéeyal Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ndaxte ci jamonoom ci la ñu nekkee ay murit lu ko dale ci jëwriñ ji ba ci ki mujje jokk ci daara ji jamonoy sëriñ saaliwu ci lañu doon ay murit te bëggunoo yem ci murit képp ay saadix lañ bëgg a doon te dinañ ko doon incha allahu rabbi barkeb sëriñ saaliwu kon du ñu def lu dul daaneel foofu sunu kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ngeen jëf jërë ngeen jëf ba tey ñoo ngi kii ci seen émission bi nga xamante ni mooy émission guddi àjjuma ñu koy amalee fii nga xam xamante ni moo di Touba Vision ba tey ñu toog ak euh, suñu wóllare bi suñu lépp di Serigne Baye Cheikh Ndaw mu Lamfal FM mu doon jëmm yoo xamante ne moom liggéeyal Serigne Touba képp ko ah, liggéey bi nga xamante ni mooy liggéey daayira Miftahul ci biir ñëw fekk ko fi lu ñàkk lu ñëw ba dem te dekku ñu ko suñu micro moom suñu ñaaxaat ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii di fi liggéeyal Serigne Touba ah, ngir ñu gën xam fu ñuy teg seen tànk bu baax baax kon lay seex dañ lay laaj rek amaana nag nga gisee liggéeyu ndaw ñi nga xamante ni ñi ngi fii muy liggéey bu am solo bu sell boo xamante ni amaana euh, kenn waralu ko dul jëm Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ñu doon ci ay jàmbaar lool ci ak tënk rek lan la ñuy leen ci loolu. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk jullit yi mbokk taalib yi kenn ku nekk dellu si na di leen nuyu ci seen seen sant di leen siyaar yi ñëpp di leen bal wax di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mi jéggale yàlla nu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yu njëkk ak suñu bàkkaar yu mujj yi barkeb xaadimal Mustafa jërëjëf jëf yu ànd ak jërëjëf ak sëñ Modou Faye jërëjëf jëf yéen ñi nga xam ne itam da a taxawee liggéey bu sell muy tasaare lu jëm ci jëf yi di jëfal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te su ngeen ko defee mu dox su ngeen ko deful mu dox waaye alhamdulilahi rabil alamina bi ngeen ci jàppee te bokk ci ñi koy doxal te bokk ci ñi koy sellal di nuyu nag bu baax a baax ñi fi nekk ñëpp ci gàttal waaye di ci jiital ki nga xam ne mooy jawriñu daayira bi di sëriñ Pape Ndiaye di ñaan yàlla suñu borom doole guddal ak fanam te wéral ay cëram ci barkeb ki ma bokk moom bokk koog yéen di Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina noonu lañ koy ñaanalee soxna yëpp. ci barkeb ki tax ñu defaru muy soxna maam jaaratullaahi maam Seynabou Ndiaye yal na yàlla jàppale na mboolem ku dëkk jàmm gën ak li ko wër ak koo xam ne gis soo déggee daayira di sa xol sedd ci yàlla na la yàlla jàppale waaye ñëw nga ci quartier bu bëgg seen bopp ñëw nga ci quartier bu fulla bu boo xam ne li fi nekk ci ay ndaw ñëpp ci li ma xam li ci ëpp lépp wuutal si nan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimal Mustafa dafa am loo xam ne lii nañ ci bàyyi xel rek ka woote woon ba lépp defaru njëkk a woote ba lépp defaroo moo mujje woote ba lépp defaru Sëriñ Tuubaa moo fi taseeg mag ñi kenn ku ci nekk nekk ci sellal wante sellal ga nga doon sellal di jàng alxuraan di liggéeyal yàlla su borom yoon wa nga war a xam wa nga xam ne mën nga war a xam aw ko ba yegg ca dëkk ba danga ko dul xam ba tax ñu bari xëy nañ ca fajar aw yoon wi di dem Cheikh Madou Bamba gonte ca timis ñoom ñëpp ñu ñëw fekk ko fa kookoo di Serigne Touba. kon mag ñi nga xam ne ñoo day fekkoon nag Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ñëpp te mag ñi yàlla suñu borom dogal ñu nangul Serigne Touba ñu uysi ko ñenn ñi nangu uysi saayir la ñenn ñi uysi baatin ñooñu ñëpp Serigne Touba leen omat ba tàbbaleen àjjana loolu la Serigne Touba Cheikh Saliou feddali ne li nga xam ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba waxoon jëmale ko ci mag ñi moom laa jëmale ci ndaw ñi kon ndaw ñëpp woo naa leen ñu jox ma leen ma defaral leen seen àddina defaral leen seen àllaxira bu nekkuloon ak Serigne Touba Cheikh Saliou ku fi dee dem sawara ñun ndaw ñëpp ndax yoon wa day jaar ba gindee ko loon dul xam kon yal na yàlla defal ñëpp jàmm defal ñëpp xéewal defal ñëpp ak ci barkeb Xaadimu Rasuul murid yi ñaar la muridub àddina ak muridub yawmal xiyaam li àddina di bëri bëri ñaari murid rekk fi nekk muridub àddina ak muridub yawmal xiyaam murid bi yowmal xiyaam bi lu muy jëf lu nekk mi ngi ciy fàttaliku ëllëgam ku mel ne Pape Ndiaye ak mu àndal. murid àddina nag lu muy def yëfi àddina rek la. te Sëriñ Tuubaa day ku ñëw fi moom ngir koom mi ak saay seeg baatin du mu jox la ko baatinam dellu si waat kon loolu nañ ko xamaale bu baax ñun ñii fi nekk ñëpp itam bokk nañ ci ñaari kuréelu murid benn kuréel bi murid saadix la benn bi nag yeggagul ci saadix benn bi dafa jóg di daw lu bon guddi ak bëccëg tisbaar ak tàkkusaan waane ma nga ca yoon wa beneen murit bi ci nag saa yu jógee rek fu mu jaar lu bon du jaar kooku daa daw bara wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa taala jërëjëf jërëjëf Serigne Serre Ndaw mu doon kenn moom it wax dëgg yàlla ku ñëpp ràññee ku yàgg topp Lamp Fall FM rek yàgg nga dégg kàddu mu doon euh, Baye Fall boo xamante ni it bu ñëwee Serigne Serre Ndaw liñ ciy teg mooy Baye Fall di ko ñaanal suñu borom guddal fan lool moom li nga xamante ni mooy liggéey bi nga xamante ni fi la ko Serigne bi féetale muy liggéey média mu am ci ndam ak képp koo xamante ni moom la àndal kon xam naa ne mbokk yi dañuy dugg ak yéen tuuti rek ci mbokk soxna yi am ay laaj yu ñeen ni rek ñu mën a yeewi jotaay bi kon nees tuuti rek ñu dikk ak yéen am ay question yu si xam mbokk soxna yi bisimilah. jëf mbokk yi ba tey ñoo ngi ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni mooy émission guddi àjjuma comme ñu leen ko waxee rek ñoo ngi fii ci Diamaguène euh, fekk fii fekk si fi daayira euh, Miftaaxul Muna ci liggéey bu sell bu am solo boobu nga xamante ni ñoo ngi ko fiy taxee waaye ba tey. ñu toog ak uh, suñu yaay Fat Fall mu bokk ci membre liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu daayira Miftahoul a bokk ci ci daayira Soxna Jaara bi nga xamante ni lépp it daa bokk ci uh, liggéey bi fa seen ne ko dékk suñu micro rek mu wax ñu tuuti ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ngir sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa kese ñor leen ana tey naka la gisee liggéeyu ndaw ñi nga xamante ni ñoo doon ay doomam amaana yem lool fuñ leen yemoo taamu liggéey bi nga xamante ni mooy liggéeyu Serigne Touba bi day mel ni comme niñ ko waxee léegi rek day mel ni gox bi ñu nekk raaf na lool ndaw di fi ne di dund lu baax raaf na lool ndaw ne fi di xencu xasida yi ndax day mel ni ku ne xam ne fii ñu nekkee euh, muy euh, diwaanu jàmm gan day mel ni ku wax jàmm gan rek sa xel dina dem ci banditisme yi nga xamante ni amaana bari na fi lool ndax day mel ni ndaw ñi jamono ji ñi ci ëpp ci boor yi nga xamante ni fi lañ nekkee tox yàmba gaz agressé sàcc jël loo xamante ni moomu leen kon ñii bu fekkente ni dañoo doon ay ndaw ci defarug Serigne Saliou dara yi yitteelu leen lu dul liggéeyal Serigne Touba nekk ci xasida yi ana tey eh, naka la gisee doom yi nga xamante ni dañoo nekk ci daara ji nga xamante ni mooy daara Miftahul a doon ay jàmbaar lool amee fi liggéey bu am solo liggéey asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala maa ngi leen di nuyu. ànd ndoog daayira maam Jaara Buso noo ngi sant bu wér jërëjëf sëriñ Touba. jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba. jawwala ka maam Cheikh Ibra Fall. ñoo ngi am di bëgg bu boo ma laajee ji xale yi suñu doom yi. dinaa ci sabar. danaa ci am lu ma ci mën a wax. ndax lépp sax mënuma koo wax. waaye daa am lu ma ci cof. ñu ne noo sant bu wér. ndax dëkk bi rëb na rëb goo xam ne nii. jaxasoo na jaxasoo goo xam ne nii. ah ñun suñu waa seen waajur leen di tiitaroo. danoo sant yàlla sant sëriñ Tuubaa bu wér. sant sëriñ Saalim Mbàkke defaral ñu suñu gone yi. man day musuma gis ko ci yorub cigarette di tux musuma gis ko ci sol loo xam ne bu la rombee nga ne cay bàyyi xoolal tubayam ji di wàcce. xale yi macha allah lu yiw la ñuy sol lu yiw la ñuy wax. toq ci yaru ci ba ñun seen jur yi nga xam ne nii sax dañ leen a yar ñun gone yi dañoo wëbit ko duñu yaraat ba lu bari jomb dañ ko lu bari rus nañ ko. gën a bëggati Sëriñ Tuubaa. ànd ko gone yu jigéen yi. defuñu lu bon bëgg Sëriñ Tuubaa ba mu jeex tàkk. sunu koñ bi doo gis ko fi takk soxna musique baa nga sabar doo gis ko fi tudd sa tu tànk def ci leen. xasaay rek ngay dégg cant ba ñun ñemeetuñu sax lu mel noonu ñun seeni ñu bi nag ca kaw ca kanam xale yi biñ ko njëkkee sos fii nu mes waare suñu jëwriñ ji di yaay waajuru Pape Ndiaye ngi ni toog ak ñiñ ko bokkal seen laylatul xadar giñ ko njëkk a defee lañu am si walaa ngàbb wóor na way juróom yi dem foora jëndal leen ndawal toggal leen cin lu ndaw ñu daayere ko ñu baas ko ci seen buntu kër ca déwén sax ma yor paan ñetteelu at ba di yeewu nag ba tey wàcc tujja ba tey wàcc tujja at mu jot bu ñu def seen cat dug sëriñ Saliou du la la rey tant que xajatul ci koñ bi dañ koy yóbbu si mbaaw ndax lépp seeni pastéef ak seen bëgg sëriñ Touba di liggéeyal sëriñ Touba te yàlla tax buñ ci dugaloon am fooy walay caaxaan ba tey waxatuñ ko waaye ni ñu ci dëggoo ak ni ñu leen ci jàppale yàlla ñu dund ba suñu sët sëtaat yi mm-hmm. seeni doom di at ñoom di ko def bañ nañ ko ba seen tout tànk yu ndaw yi seen maam soxna jaaree seen saal yu amagul ñetti at boo demee kër jëriñ dangay fekk ñu la basal nga maam kaa ñu abatura nga xam ne lii buñ ci màggee mm-hmm. macha allah te am nañ ci yaakaar mm-hmm. jërëjëf yéen waa télé bi ñu leen di sant di leen ñaanal li ngeen def neex na rëy na guddi àjjuma gii nii ngeen ñu ko defal lépp duñ ci ñaan yàlla ko yàlla yonent bi sëriñ Tuubaa nangu yàlla dugg ba ngeen am seeni télé ñun de kontaan nañu bu ngeen doon dem ba fajar rek duñu gëmmentu duñu yàkkamti ndax li ngeen def neex na torop ndax ñun ñoo leen waroon a gëstu di leen wari ngeen ñëw ba fii defal ñu lii sant lañ leen bu wéré wéré wéré di sant Pape Ndiaye jëruñu xale yi aw fi yoonu tubaarkàlla macha allah yoon bu baax awal ci xale yi sant nañ ko bu baax Njaay di sant waa daayira bi ñëpp sant boo sant jigéen sant daayira maam jaara bi nga xam ne nag boolewuñ dara ak maam jaara ñu ngi door a jóge euh, poroxaat sax àllam boobu jot ñu daje kër jëwriñ daayira suñ daayira maam jaara bi dimanche xale yi daayira daayira sëñ fa saaliw bi nu àndandoo nag rek uuf gu nañ nag rek fas yéene nag ñoom ba àjjana. sant nañu bu wér a wér a wér sant naa leen. waaw ana tey lan ngay ñaaxaat gone yi nga xamante ne xanaa ñu gën a jaajuwaat nag rek. gën a góorgóorlu nag te xam ne defaguñu dara. yow ni Serigne Touba wi ku ci nekk bul sonn bul tàyyi. saa woo xëyee del ànd ak courage. nee naa léegi kii damaa toog ba yàgg mu ne ma gëmmentu nga ma ne ko samay nelaw naaw na buñ doon lim fàtte sax man na maa toog xale yu góorgóorlu ndax ñun kat yéen la ñuy gunge. lii ñuy def nii. bëgg ngeen am jom rek gën a gën a bëgg sëriñ Touba Mbàkke yéen a ngi ci waaye nag paaka lu mu ñaw ñaw nga daas ko waaw góor la ñu góor góor góorlu leen gën a yokk seen góor gën a yokk seen taalibe bu kenn bëgg dara lu jëfal sëriñ Touba ah ñun seen i way jure loolu la ñuy def fu nu wootee ci sëriñ Touba wala soxna jaar wala daayira sëñ Fall yëpp la ñu ñu nga daayira sëñ Fall ñu nga daayira tey sëñ Mbàkke soxna loo ak sëñ Mbàkke yaa ngi di toog ñoo ak daayira sëñ Mutalla Falilu moom yaay soxna Juma jëruñ njaa ngi nii toog ñoo ak daayira maam Jaara bu sa soxna Ndumbe Soumaré rek ko dina ak mère Ndiaye sunu yaay day liggéey la ñu xam ci la ñuy yëngu ci la ñuy yor sunu nekk ba àjjana waaw fas yéene sunu nekk ci sant rek mm-hmm. sant sëñ Tuubaa bu wér nga xam lépp laa ñoo ngi nuyu di ziare mbooleem ku fi teew di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi sëriñ Cheikh Sidil Mokhtar xalifatul am di taarixatul muridiya di ci nuju mbooleem xalif généro yi di ci jiital ci jotaay bi suñu jëwriñ mu sëñ Pam ak mbooleem jëwriñu soxna yi nga xam ne yaram bu moo jagadi moo tax teewul waaye ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di jë yeesalaat suñu njëbal si suñ sëñ Pam Ndiaye suñu borom kër ñu ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàcc waayam waaw di wax ne daara ji moom comme ni ñu ko laajee rek ñun dañoo dellaat santaat sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax ndax suñ nee suñu laajee du suñ sëñ defal ñun amuñu leen lu ñuy wax lu dul lépp dañ naan sëñ Tuubaa mooñ defal lépp moo def ay murit moo def ay jullit moo def lépp kon ñun suñ Tuubaa lépp lañ defal bam bam mu defalee lépp nag daf ñoo defalaat lu kawe muy jox ñu daayira Miftaaxul Munaa waaw daayira Miftaaxul Xumaan nekk daayira boo xam ne nag liggéeyal Sëñ Tuubaa kese moo ko tax a jóg mm-hmm. raxu ci leneen mm-hmm. ndax fii gis nañ fi lépp waaye daayira bi dafa jóg ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa raxu ci dara dajale góor yàlla ak soxna yi ñuy liggéeyal Sëñ Tuubaa jàng xasida jàng xam-xam liggéey loolu rek moo ñor ñor daara ji mm-hmm. waaw soxna yi tamit nekk ay soxna yu am passif yoo xam ne ànduñ boolewu ñoom daraak wax boolewu ñoom daraak caaxaan dañoo jug ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa ànd ko nag am ci Pastef am ci fulla am ci fayda ndax nit ki tam lépp looy def danga ciy am fulla fayda mooy waral bu yàggee bëgg boo ko bëggul sax di ko bëgg bëggul yi sax bu yàggee dina nekk ci sa xol ñoom ñëpp nag ñu ànd ci seen jotaay bi dugaluñ ci leneen dugaluñ ci kenn koo xam ne tamit da leen di rax ngeen yàqal leen ndax nit kat boo bëggee doon dara dangay ànd ak ki doon dara mooy tax nga mën a doon dara ci kaw bëgg a doon dara googu moo tax seen ànd bi raxuñu ci leneen dañoo ànd ngir jëmi Sëñ Tuubaa comme ni ko sëñ Touba tënkee rek wala si moom man laa di rab li rabbi xaa inan ila huda ñoom ci loolu la ñuy dox dañoo dañoo teg seen bët ci ñi nga xam ne dañu leen a jiitu ci lu baax ñu topp seen ginnaaw di ànd ak ñoom ci loolu. kon loolu mooy yittey daara bi loolu mooy pas-pasam loolu mooy tamit di yëg-yëgam ci sëñ bi waaw. ana tey sa mbokki soxna yi naka nga leen di waxee ñuy jàppaat liggéey. waaw comme niñ ci nekkee rek. ndax olof dafa wax moom li mu daw daw daw des na ko làbbali te ñun li ñuy làbbalikontee rek mooy jàng xasida yi ndax ci la nekk soxna yi képp ku leen di soññ ak képp ku leen di wax xëy na danga leen di wax njokk seen bëgg seen pas-pas rek waaye lépp luy njàmbaar ci liggéey bi rek ñoo ngi ci lépp luy seen ta seen pas yëpp daal mooy jàng xasida yi ak liggéey ci daara ji foo leen woon ak lu muy guddi ak bëccëg fépp fu waay mën a nekk soo ko woowee day dagg ay yitteem ñëw mbokk soxna yi tamit foo leen fekk ñu ngi durus ñu ngi dajaloo di jàng loolu daal mooy seen dite ci daara ji wax dëgg yàlla ñu leen di soññ di sonnaat suñu bopp bu baax a baax a baax ba soxna yi ñu ngi góorgóorlu lu baax a baax baax comme niñ ko waxee. Ah, comme niñ ko waxee léegi rek day mel ni laaj boobu seq nañ ko léegi góor yàlla yi waaye ba tey dinañ la laajaat ba xam soxna yi ñi ngi góorgóorlu bu baax a baax a baax ci xam ah, seen farata ak seen sunna waaw ah, ndax loolu am na ci solo. dëgg la waaw soxna yi moom ku leen xool rek di nga xam ne ñii bo loo leen loo leen loo leen xalaat ci ñoom rek ci wàllum xam-xam xëy na donte ne lépp lépp nekku fi ndax xam-xam moom géej la kenn ku nekk mën ngaa tànq te du tee du jeex. kon ñoom lépp loo xam ne tamit seen farata la ñoom ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax a baax ndax tak gàcce la ci ab murit ngay dox ñu laaj la am ndax tey jii am na ñu bëri ñoo xam ne ci ak sa accoutrement rek ci la ñuy jàppee ci lañ lay jàppee. tey jii kon ñun mënuñu ne ay murid lañ ay soxna lañ ñu bëgg sëñ Touba te duñu gëstu ci suñu diine duñu gëstu suñuy farata ndax kat imaam sëñ Touba wax na ci ne kii la xaram na ci mukkalaf muy jëf génn jëf te xamu ci àtte farataam wala sunnaam ba imaamu xaw fu dem na ba ne sax jëf jooju jëf jooju euh, lu xaram na ci moom sëñ tubaa demaat nag di ñu wax ne ngir ñu gën a góor góorlu di wax ne jëf jooju xuppe wax jooju xuppe la akub yeete ngir ñu góorlu ci suñu wàllu diine ci wax jooju nag ñun ci lañ sukkandiku ba lépp loo xam ne suñu wàllu diine la ak suñuy farta dañ koy gëstu ñu ci profité wu di gërëm suñu ustaas bu baax a baax suñu Ablaye Sarr borom pas-pas la te ku xam-xam ñor la wax dëgg yàlla dama ko daan woo di jàng fii laa nekkoon di jàng mënatuma ko damay yor sama téléphone dugg ligne di ko woo mu may jàngal barki Serigne Saliou sama ligne bu jeexee dafa day dugg moom ne ma ndax am nga jot pour ma jàngal xam nga loolu ku bëgg xam-xam rek moo koy def te ñu mel noonu di ànd ak ñoom dalay soññ mooy li ma wax sànq rek ci bayit boobu wala zimu boobu kon di ànd ak ñu mel noonu mooy tax ngay soññeeku ngir mën a xamaat daal kan mooy sëñ Tuubaa bu baax a baax waaw jërëjëf soxna Seynab waaye ba tey dinañ dikk ak yow fenn day mel ni jamono ji soxna yi ñi ci jaayante laxasaa yu bari na day mel ni muuraay yi ñu ci bari dañ koy def modd gis nañ ne biñ ñëwee liñ fekk ci jataay bi dal na xel muuraay la gis nañ ñi ci ëpp maanaam dañoo muuru ba seeni cër maanaam la cay feeñit amaana lu war a feeñ la waaye ndax doxin woowu day wëy ba xam ñi ci ëpp ci ñi fi ne jàppuñ muuraay gi modd jërëjëf sëñ Modou wax nga lu am solo ndax jamono ji loolu moo jaxase àdduna bi mm-hmm. ndax soxna yi fi mu toll nii mënatoo xam xàmmee ki baax ak ki bon ndax muuraay gi mm-hmm. da gis koo xam ne day muuru ba jeeg mm-hmm. fekk loolu nekkul ci xol ba ndax muuraay gi fi mu toll nii modd lañ ko def am na ci ñenn ñi bokk am na ñoo xam ne modd lañ ko def waaye da di am na ci ñoo xam ne boo leen ne jàkk xool leen xam ne lii théorie la pratique la ci ñoom. xam na ñoo xam ne xëy na nag théorie rek la ñuy def muuraay bi dañ koy def nii ngir lan modd la rafet na pour ñu def ko mais fii ñi fi ne dañuy théorie di pratique muuraay gi ci seen xool la ne. dafa am ñoo xam ne nag boo la nee jàkk di nga xam ndax li dëgg la ci ñoom wala dëgg ci ñoom waaye fii moom képp ku ku leen xool di nga xam ne muuraay gi ci dëgg ci dëgg la ci ñoom ndax nit ki lépp looy def na nekk sa xool te nga dëgg muuraay dafa nekk farata ci jullit. ndax yoon kii yonente bi salaa salaam wax na ne sa diine du mat sëkk sëkk yow soxna si tànk ne ko sa cër yi yëpp muuroo ko ba li nga xam ne moo war a feeñ ci yow daal di feeñ ci yow sëñ Tuubaa dellu wax ne du mi ala tawbati wata sa tuuri wala tax fi di ki dax doon tuskarin mooy yow soxna si na ngay muur sëy na ngay wax ndànk na nga sax ci di wax ndànk te nga suturaal sa yaram bi jigéen dafa war a suturaal ay yaramam kon ñun ku ñu xool rek xool suñu waajur yi waxuma la nga yegg siñu waaye wane jëng si suñu waajur yi rek xam ne ñun duñu ñemewuñ koo def ñemewuñ sax def muuru bi modd mm-hmm. dafa nekk loo xam ne pas-pas la ak bëgg gu nekk suñu xol mm-hmm. waaw jërëjëf mbokk yi dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu soxna si yëkkati day waral ne ah, comme ñu leen ko waxe woon rek ci ndorteelu émission bi nga xamante ne mooy émission guddi àjjuma day mel ni nit ah, niñ leen ko diggee woon gis ngeen ko émission bi am na solo lool. Euh, ndax euh, bu fekkee ne amaana comme ni mu ko waxee léegi léegi dañoo nekk ci daayira bi ngir amaana jàppi muuraay gi mod rekk wala damay dem daayira su ma demee daayira su ma ñëwee dindi ko wala damay takk li nga xamante ni moom mooy euh, bopp bi rek su ma fa jógee maanaam def ko benn xeetu modd waaye dafa war ci maanaam euh, soxna maanaam ngay fexe ba di euh, nëbb sa cër lii nag moom lañ leen indil waaye kon ba tey dañuy fas yéene maanaam yëkkati jataay bi tëjee liggéey bi xasida yi ànd ko kuréel Miftaaxul Munaa ci njàngum am solo moom nga xamante ni moom la ñu dooree liggéey bi ñu fas ne ko tëjee liggéey bi di ñaan suñu borom dëppale ñëw ngërëmal Serigne Touba naka noonu lañ koy ñaanal képp koo xamante ni teewoon nga nga fi ànd ak ñun ci guddi gi nga xamante ni mooy guddi ajuma gi ngir ngëneel yi ci nekk yàlla nañ ko suñu borom dajale amaana mu doon ay ngëneel yi ngëneel a fay ñu ko def ñu ay tiyaaba kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen joxe dig daje yeneen guddi ajuma yeneen émission comme niñ leen ko digee di leen ko waxee saa su nekk mbokk yi kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu سيدتي المسيح Hasan